lundi 8 mars, euh, lundi 8 mars 2019. Euh, Merci et bienvenue

fédération euh, sénégalaise de basket donc dinañu yëy yàbb ci li nga xamante ni moom mooy assemblée générale buy amoon ni ki démb nga xamante ne sax jot na am ay euh, jiir jaaxa waaye dinañ ci gën a xuus ci biir waxtaan bi ñu continuer euh, en même temps ci lu jëm ci wàllum xibaar actualité on y sera avec Ka Ibou Baldé ak Nabou Ndiaye donc tey dinañ waxtaanee ci lu jëm ci suppression li nga xamante ni moom mooy poste premier ministre bi donc du coup mu nekk actualité boo xamante ni moom moo gënoon ci week bi bi euh, lan la si président Macky Sall nam lan lay risqué waaye it lan la ci constitution wax ak nan lañ ko nar a jëmalee fa nga xamante ni moom mooy pencum ndawu réew mi euh, di assemblée euh, nationale dinañ fi dalal professeur Gouda Mboup nekk constitutionnaliste buñ ci jógee di lañu ñëw ci deuxième partie bi ci lu jëm ci wàllum jeunesse ak Babacar Tambédou ñu nar a waxtaane nag thème bu am solo jëm ci wàllum défi li nga xamante ni président Macky nam na ko gannaaw discours yi ñu gis yi mu euh, fësal di wax ci wàllum citoyenneté waaye di wax ci euh, li nga xamante ni moom mooy set ak euh, encombrement bi nga xamante ni am na ci biir capitale bu Dakar moom Babacar Tambédou dina ci waxtaan ak Simon bu Y'en a na la ci jeunes yi nar a jouer seen partition buñ ci jógee dinañ enchaîner ensuite logique jëm ci wàllum civisme ak laxaat ñu nar a waxtaanee li nga xamante ni moom mooy clean up challenge ñu nar fi dalal nag kenn ci initiateur yi di wuyoo ci turu ñu ca noppee on termine tout en beauté ak li nga xamante ni moom mooy euh, musique dinañ fi dalal ki nga xamante ni moom mooy Boni euh, mu nar a ànd ak ci waxtaan bi donc sans plus tarder nous commençons avec le bulletin du matin présenté par euh, Seynabou Ndiaye la très ravissante bonjour. bonjour Adjara bonjour à tous. bonjour ñu nuyu leen euh, di leen dalal jàmm seen matinale ce matin c'est à daal di woy ak li nga xamante ne moom moo jëm ci flash d'information bi ni ñu ko waxee gouvernement bu yees bi nga xamante ne ni ki démb daal di nañuy euh, publier lu jëm ci liste ba fële ci palais de la république loolu waral kon euh, ba ñu am ay ay ministre yu bees ndax nag am na fukk ak ñeent yu nga xamante ne ñu bees lañu daal di dugg ci boobu lépp gouvernement waaye ñaar fukk yi nga xamante ne jotoon nañu cee bokk ba noppi ñoom daal dinañu leen di jéggal maanaam seen tur bokkul ca boobu lépp euh, liste muy nag euh, gouvernement bu nga xamante ne bu ñu sukkandikoo ci Mahammed Boun Abdallah Dionne di jëwriñ ju njëkk gi euh, bépp région bu ne gis nga ci sa bopp waaye itam fësal nañu ci bu baax a baax jigéen ñi ci biir boobule gouvernement ndax ci téeméer boo jël ñaar fukki ak juróom ay jigéen lañu loole tukkee ni ki démb ci kàddu Mahammed Boun Abdallah Dionne ginnaaw nag ba ñu doon fësal lu jëm ci listub gouvernement bu yees bile ci boobu gouvernement sax la ñuy desandi wax ci ki nga xamante ne moom mooy chef de cabinet bu maître Hamady Kenya moom daal dinay wax ci lu jëm ci installation wu euh, ki nga xamante ne moom moo di Mohamed Boun Abdallah Dionne waaye itam euh, suppression bi nga xam ne wax nañu ko ci lu jëm ci poste euh, bu premier ministre la mu jàpp nag mooy mbir moom mais faw ñu jaaxale ko ci yoon yóbbu ko fële ca pencum ndaw réew ma ba noppi daal di ko ci euh, dindi waaye moom di nga xamante ne moom moo di directeur de cabinet bu Maître Madické Niang la mu jàpp euh, mooy boobule poste di poste premier ministre kenn waru ko dindi ñu teewlooy kàddoom ci micro Koumba am solo mooy àdduna moom lépp rek am njëriñ am njëriñ li nga xam ne nag moom lañ mën a gis ci lu neme noonu moom mooy que président de la république day nekk ki nga xam ne moom mooy jiite action publique maanaam li li ñu war a taxawee ci askan wi pour faj ay soxlaam léegi président moom moo koy jiite directement parce que ñëpp ci moom la ñuy ñëw bu bu ko defee bu defee bu laajee loo xam ne dafa war a dogal day daal di dogal ci saa si bu ko defee jëf ji day daal di gaaw ñu daal di résultats yi mën a gën a gaaw gaaw am loolu moom mooy tax nit ñi di ko def euh, moo tax yenn régime yi nga xam ne ñu leen di wax de républicain mais dafa am leneen loo xam ne lii aussi mën na ci nekk lor parce que lii bu ko defee dafay Euh, dindi nag li nga xam ne moom moo nekkoon kiraay parce que ñun régime bi ñu am dañ koy tuddee euh, un régime bi nga xam ne bi républicain la en fait bien que euh, am nañ premier ministre responsable devant l'Assemblée mais xam nañ ne premier ministre bi nekkul koo xam ne kii moom mooy dogal donc en fait dëgg dëgg dëgg république république bi ñu am présidentielle la donc loolu bu ko defee it day dekk rek daal di dindi kiraay goo xam ne gii defoon nañ ko fi nii rek pour euh, à la limite euh, niiru luñ nekkul waaye li wóor bu wóor moom mooy premier ministre amoon na njëriñ boobu moom mooy bu fekkente ni euh, am na loo xam ni am na njuumte ci liggéeyu gouvernement bi ah premier ministre xaw a juum ak équipe président dana ñëw mën a jubbanti. mi ngoog ñu wéyal lakk euh, xibaar yi wax ci lu jëm ci wàllu wér gu ak euh, mbirum euh, xeesal ñu gën ko xam ci dépigmentation ak li nga xam ne moom moo di lorange muy indi laskan wi muy lu jëm ci mbirum cancer de la peau mbir mu ni mel nag ñii di médecin yi wala ñi nga xamante ne ñoom ñoo nam ma doon médecin nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom la ñu gis ba tax ñuy indi lu jëm ci wàllu sensibilisation ñeel jigéen ñi waaye itam yenn ci ay góor yi nga xam ne dañuy faral di jëfandikoo yenn ci produit ngir xeesal mbir mu mel nag jàpp nañu ni faw sensibilisation bi gën a jëm kanam ngir euh, ñu daal di euh, wàññi loolee lu ko mooy la muy jural askan wi ci loxo ngir na mujj bari Kumba Gisee bu ñu sukkandikoo ci yenn statistiques yi Sénégal nekk na ñaareelu dëkk Afrique bi nga xamante ne ni wàllum xeesal daf leen di laal bu baax a baax mu nekk jafe-jafe boo xamante ne ni jot na ngir ñu daal di ñaax askan ci na jigéen ñi nga xamante ni ñoo koy jëfandikoo ngir ñu daal di xam risque ciy am. ñun ñëpp ñoo booloo pour organiser li nu mel donc ren activité bi ñu ngi ko toll thème boo xam ne day wax ci wàllu xeesal ak xeesal lan la mën a causer ci par rapport ak santé parce que gis nañ ni nekk na loo xam ne dafa ràññeeku torop ci dëkk bi surtout ci jigéen ñi moo tax ñu choisir ko pour mën leen sensibiliser wax leen xeesal lan la mën a jural nit ki ci wér gi yaramam donc moo tax ñu choisir ko ñu am aussi comme marraine professeur Fatma Tali ñu gën ko ràññee ci koo xam ne dafay xeex ngir jigéen ñi mën a wàññi xeesal ndax conséquences yi mën a andi ci seen wér-gu-yaram. neen lu soxal médecin yi moo di wàllum ger mu nekk mbir moo xamante ni dafay laal bu baax a baax réewub Sénégal bu ñu sukkandikoo ci classement bu Transparency International joxe Sénégal mi ngi pointé ci 66e place. bi euh, dafa fekk ni waa OFNAC nag ñu fekk si si activité bi ñuy def donc ñoom euh, li ñuy gën prôné mooy lutte contre la corruption donc moo tax ñun ñu boole ko si pour ñaax suñu mbokk étudiants yi parce que ñoom ñooy relève dëkk bi ñu mën a bàyyi xel par rapport ak corruption loolu la mën a apporter si dëkk. promotion sortante bu faculté bu médecine ñoom fas yéene ñu benn yoon dakkal li ni mel ndax yeneen i campagne de sensibilisation dinañ ko daal di amal loole nag nekkoon ci bés bu ñu amaloon mu wàllum tàggat yaram teg ci doon activité boo xamante ne ni ki ci daal di fës bokk na. ci kii di maître Madické Niang ñu wax ci xibaari biti réew ak génocide ba amoon ci Rwanda ni ki démb yemoo woon ak euh, juróom-ñaari fan ci weerub euh, avril la ñu ko doon fàttaliku muy nag euh, juróom fan ci avril 1994 ci la génocide boobee tàmbali woon ci diggante weerub avril ak juillet 94 ba tax lu yemoo woon ak juróom-ñett juróom-ñetti téeméer li junni ci ay doomi dama ñàkkoon ci seen bakkan ci Rwanda nag kii di njiitu moom moo daal di ubbi yooyu lépp xew-xew fàttali ba noppi xam nag yooyu le mbir moom dañ ko war a bàyyi ca ginnaaw te jéem a kon ah, xool lu jëmale kanam seenub réew ñu del si ci boobu lépp fàttali ak Tere gannaaw ñaari fukki at ak juróom génocide ba amoon ca Rwanda ci bés bi ñu koy fàttali ci lu néew lu tollook juróom ñett téeméeri junni nit ñoo daal di ñàkkoon seen bakkan ci dimanche bi nag dëkkum Rwanda dina amal ay activité ngir ñaanal ñi lee génn àdduna ci boobay génocide buñ fa jógee nag seen juutum réew Paul Kagame dina tàmbale bés bi ak i ay ñaan mais itam dina daal defaat ab discours ci diggante téeméeri fan lii di génocide rwandais bokk ci classement génocide yu gën a rëy ci àdduna bi ngir nag daal day teg loxo ñi lay def bile ñaawteef kuréel bu yor wàllum kaaraange ci ONU daa day créé lii di tribunal spécial ñu dippee ko tribunal pénal international pour le Rwanda lu tolloo nag fukki président dinañu fekkee boobay commémoration gannaaw ñaari fukki at ak juróom jafe-jafe ngi am ba tey ci diggante France ak Rwanda mu daal di nag samp ab laaj ndaxte ñàkkum teew président Emmanuel Macron ci vingt cinquième anniversaire bu génocide day daal di dëggal jafe-jafe yooyu am ci diggante France ak Rwanda. ngoog Thérèse euh, Samb ñu gërëm ko mbokk yi loole la ñu ndax képp lu jëm ci flash d'information bi ñu bàyyi leen ngeen wéy ak euh, ci seen matinale ce matin c'est à nous. Merci Nabou. Merci Nabou, c'est ce qui a fait euh, l'essentiel de l'information du matin. Donc nous passons directement à la revue de presse avec ki nga xamante ni moom mooy Mamadou Lamine Ka. Bonjour. Bonjour Adja Cissé, bonjour à toutes et tous. Maa di nuyu ginnaaw bi ñu ci seen matin seen matinal ce matin c'est à nous euh, ñu dalal jàmm ci li gën a fës ci ëttu yëglekaay yi ñu dooree ko ak euh, enquête euh, quotidien mi xëy fësal Mohamed boo ma ne wane li may wax dina ci am njëriñ lool mu jëm ci taxawal gi nga xam ne taxawal nañ ko góor na gouvernement bu bees le grand chamboulement noonee la ko enquête xëyee fësal tey jii la tribune xëy fasal ci xëtam bu njëkk lu ni mel ba léegi lu tollu ci fanweer ak ñaar ci ministre ak ñetti secretaire d'État loole euh, moo nekk ci gouvernement bu bees bi lu toll ci euh, ñaar fukk ak benn ministre nag ñu daal di leen di dàq ci euh, gouvernement bu bees bile. le quotidien xëy fasal ci xëtam bu njëkk li nga xam ne moo jëm ci gouvernement bu bees ba léegi Macky sans faste ministère bu économie et des finances ñu daal di koy xaaj ñaar Amadou Ba moom jamono ji euh, dana ko sànni foofee ci affaire étrangère euh, kii di Makhtar Cissé euh, dellu si waat Amadou Hott itam bokk ci gan yu bees yi nekk ci gouvernement bu bees bi lii di transhumance nag ñi demoon fekki Macky Sall dafa mel ni danu leen fàtte ci gouvernement bu bees bile Sud Quotidien xëy fësal ci xëtam njëkk Euh, tabax gi nu tabax gouvernement bu bees euh, Macky en marche Macky jamono ji euh, ci dox la nekk loolee nag mooy li nga xam ne moo fës xët bu njëkk bu Sud Quotidien kii di premier ministre bu Abdallah Dionne delloowaat nanu ko waaye du yàgg mu delloo ndombal tànk loole ki ko dénk lii jëm ci dindi gi ñu wara dindi itam post premier ministre bokk na ci li fës ci xët bu njëkk bu Sud Quotidien Dakar Times xël xëy fësal ci xëtam bu njëkk li nga xam ne moo jëm ci euh, li ñu Niger jamono ji jëm ci dindi gi ñu war a dindi euh, post premier ministre euh, coppite yi war am ci constitution bi lu toll ci fanweer ak ñaari ministre ñu daal di leen tab lan moo nar a ci réew mi loolee moo fës ci xët bu njëkk bu Dakar Times l'observateur xëy fësal ci xëtam bu njëkk ñeel li nga xam ne mooy gouvernement bu bees bi ñu taxawal ni ki démb Euh, lii euh, di les sales coups de Macky loolee mooy euh, li nga xam ne l'observateur tuddee ko sax lii di poisson d'avril loole mooy xëy fës ci xëtam bu njëkk lu toll ci ñaar fukk ak ñaari ministre yu ñu yóbbu ci guillotine maanaam daal di leen daal euh, maanaam euh, sanctionné réew mii xëy fësal ci bu njëkk ñu ñeel gouvernement bu bees boobee euh, lu toll ci ñaar fukk ak ñaar ci ministre dàq nañu leen lu tollu ci fukk ak ñaar dugg nañu doon ay ministre yu bees fukk doon ay changement loolee moo li nga xam ne moom la ñu mën a nemmeeku ci gouvernement bu bees libération xëy fësal ci xëtam bu njëkk nag gouvernement bu bees bi ñu taxawal nit ki démb Euh, góor yi nga xam ne ñoom la Macky Sall tànn ngir nag mën a euh, doxal li ko Sénégal yi euh, dénk ñu jeexale ko ak sunu lomb mi xëy fasal ci xëtam mu njëkk li nga xam ne moo ñeel kii di Ama Baldé moom mi nag ci li muy wax nee na Ama est prêt contre Tafatine ana Ama daal jamono ji lépp yem na ngir mu mën a jàmmaarloo ak kii di Tafafin Tafatine loole nag ki ko xamle mooy magam ji di Jules Baldé Ajara li moo nekkoon li gën a fës ci ëttu yëglekaay yi xëy fës tey yemook euh, altine euh, juróom ñetti fan ci weerub avril atum 2019. <laughs> di la jaajëfal euh, MLK donc noonu la ñuy wëyee daal di déglu yóbbalu bés bi ak oustaz Abdoulaye Gueye. mbokki jullit di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. seen mbokk daara Abdoulaye Gueye moo leen di nuyu di leen ziar. di ñaan yàlla mu defal ñu ci bëccëgu jàmm te nangul ñu suñu jàmm yàlla. yóbbalu tey bi day wax ni al afaalu hiya allati tuakkidu sidqa al mahabba amma al kalaam gàtt na lool waaye dafa ëmb maanaa yu baree baree bari nee na jëf yi ñuy jëf nee na mooy dëggal mooy li nga xamante ni mooy confirmer suñu mbëggeel gu dëggu gi nga xamante ni moom la ñuy wax nit a ngi lay wax saa su ne naan la dama laa bëgg dama laa bëgg waaye nee na du wax jooju kese mooy liy doy waaye jëf ja muy jëf ci mbëggeelam googu muy wax nee na jëf ja muy jëflanteeg yow mooy lay dëggalal wax ja waaye du wax damay wax toujours ni nit ñi da ngay dégg ku lay wax ni la de boo xamoon li ma la yéene dem banaan la lu ma la yéene yàlla naa ci jiitu te fekk ni ca xolam yéenewu la dara lu baax yéenewul a réussite yéenewul a texe yéenewul a nga am jàmm yéenewul sa njaboot nga am jàmm tey wax ci làmmiñam ni lu ma la yéene yàlla naa ca jiitu kon loolu waxi kese la alxuraan dafa bañ kuy wër di wax rek te li ngay wax nekkul ci sa xol ba mu ne jullit yaa ayyuha alladina amanu li ma taquluna maa laa tafaaluun yéen gaa ñi gëm yàlla de tere naa leen ngeen di wax lu ngeen dul jëf mu ne kabura maqtan inda allahi an taqulu maa laa tafaaluun rëy na trop te garaaw na trop ci yàlla te dina jural nit ki merum yàlla ngay wër di wax fekk ni la ngay wax bokkul ak la nga gëm ay wax kese di wax ba ñu jàpp ci sa kàddu fekk ni yow sa kàddu googu amul benn valeur li ngay wan nit ki di ko bëgg naa la bu des lu dul jëf doo jëf benn jëf buy wane ni bëgg nga ko nee na kon jëf ji mooy dëggal kàddu mbëggeel gi waaye du ay waxi kese mooy tax ñu mën ni diw mi bëgg na diw du ay waxi kese mooy tax nga jàpp ne diw sa nit la ku bëgg la ku bàyyi xel la te du jëf benn jëf buy dëggal loolu kon kàddu rek doyul mbokk yi nañuy jëf mu ni Euh, amal kelaam bu dee wax ji nag fal jamii yatakallamu ñëppay wax ñëppay wax waxandoo beeg riirandoo bi bari na da ngay gis ci dara xew ñëpp àndandoo ca di wax di riir di coow ba nga defee ni loolu lañu ñu gëm ba nga defee ni looloo am solo ci ñoom waaye boo demee ba ca biir da xam ne ay waxi keese la yoo xamante ni bëri wax rek ak bëgg di waxandoo ak nit ñi la waaye bu des fa lu dul jëf dara du ci am da ngay gis sax yenn saa yi nit di xeexan ay nit di xeexandoo benn cause. bu desul lu dul war a defendre cause boobu te ku nekk ngi doon wax jaral na ma sama bakkan jaral na ma sama lii waaye bu desul lu dul defendre cause boobu ak ngëm ñu baree baree bari dañuy rocceeku ndax amuñu conviction ba ñuy wax dañ doon waxandoo rek ci mbooloo ma waaye bu desul lu dul jëf dañ naan la seet yenn sacrifice yi rek bu ma ci naree fekk ma génn ci kon mbokk yi bindu tey bi li mu ñuy wax daal mooy jëf moo wóor waaye doo ay waxi kese yàlla ñu yàlla defal bëccëgu jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu di ko jaajëfal bu baax euh, oustaz Abdoulaye Guèye ah, mu ñëw ci lu am solo euh, ci wàllum gëm-gëm mais ci noonu sax laa war a sax nuyoo ah ma commencé ko nii wala ma côté bi mu gën a yànj xaaral ma commencé ko nii di la nuyu Ibou Balde. ok bonjour Adjara Bonardi mm. <clears throat> ah, nga noppi moo gën quoi parce que. Nabou looy jooy. Ah, merci beaucoup chérie je peux pas quand même. c' te dama namoon ñii xam nga ñii dama leen namoon foog tey bu ma <laughs> toogee may de dama namoon caméra. Ah, caméra. Mhm. kan nga namoon. nga journal xam nga journal booy ñëw di journal da ngay ñëw rek toog nii def nii wax li nga mais fii. tey moom c' est l' interaction. xawaare la ba suba teel waaw. alhamdulilah rabbil alamin. ay xawaare. man day démb xawaare naa bi ma déggee liste bi ba pare dama tiit de. mais am nañ ci mbokk. ah demal après dinaa ñëw ah, am nañ ci mbokk. Mhm. Ah, ah, waaw nga dëgg yow. ah alors nga nga joxe rek sa xalaat ci yóbbalu yóbbalu bés bi nga xamante ni da nga ko def à chaque fois pencoo ko fi waxtaanee ko. c'est que oustaz Abdoulaye Gaye li mu wax dafa xaw a tombanteeg sax ak actualité. Mhm. maanaam wax loo gëm ak wax loo mën. yaakaar naa ci jaamu yàlla la bokk te su ñu waxee nouveau gouvernement mm-hmm. tabb ay ministre donc yaakaar naa ni gouvernement bi li ñu war a njëkk mën a def mooy rétablir relation de confiance ak euh, les gouvernés mm-hmm. maanaam ak population bi la ñu warloog population la ñu warloog ñi nga xamante ne ñoom lañ jiite ñu sàndi ci ay kàddu mais kàddu yu dëgg kàddu yoo xamante ne xëy na tey suñ ko jëlee wala suñ ko yëkkatee dinañ ko war a mën a respecter donc loolu muy nekk lu am solo suñ bi parce que lépp looy def tamit su fekkee ni yaa ngi ciy xool sa digganteeg sa borom yaakaar naa ni euh, dina dina xaw a euh, dina la xaw a yëkkati tuuti parce que euh, wax kàddu yoo xamante ne yu dul dëgg. Mhm. nabu. loolu lu doy waar la te nit moom kàddoom rek la am. Mhm. donc nañu fexe sàmmante kàddu yi. gouvernement bii di ñëw fexe sàmmonteeg engagement yi nga xamante ne ñoom la nar jël. Mhm. Sénégal naat ñu nekk ci leneen. <laughs> Seynabou. Adja Adjara maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu ñi nga xam ne ñoom la bokkal plateau bi MLK euh, nuyoonte ak <laughs> Ibrahima nuyoonte ak. Euh, sama mbokk mi baabu nga xam ne fee la taxaw sànq def ay yëf waaye ngi nuyu itam mbokk téléspectateurs yi nga xam ne namoon naa leen loolu waaye ah xam naa ne ñoom itam namoon nañ ma waaye man defe naa maa leen raw ak eh, MLK damay sàcc tey sa tour du monde bi nga doon def pour nuyoonte ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk eh, un peu partout à travers moom monde mm-hmm. di wax rek ci Oustaz Abdoulaye gay dafa indeetu lu am eh, solo parce que Euh, wax ni ñu koy faral di waxee dafa war di méngoo ak euh, jëf mm-hmm. te la plupart du temps ñi nga xamante ne ni que ñoom ngay gis ni mu ko waxee bu xew-xew amee ña ca ëpp euh, li ñuy wane li ñuy wax ñoom ñoo ca gën a néew li ñuy jëf te mm-hmm. loolu balaa nga koo xam jafe-jafe taxaw ba euh, war a dem au front taxaw mm-hmm. euh, nga gis ni ña nga xamante ne seenu jàppale yëpp ci wax la yem bu dara desul lu dul jëf dara desul lu dul dëggal seen mbopp bu dara desul lu dul wane seen seen péete ba ñëpp xam ne fii la ñu féete rek euh, ay rocceeku da cay daal di bëri kon nit ku nekk gor su ne sax laay wax wax na di sàmmante ak kàddoom ba lépp loo xamante ne ni ko wax nga ko nga mën koo jëfee yaakaar naa ni c'est très important am na solo Babou Ndour ah la waaw di la nga waat wala ngaa ñëw wax wax sans ma saluer mais garaaw c'est pas. waxu ko ma dara di ah. waxu ko ma dara di yaay booy bu mel ni problème. <laughs> <laughs> non bu mel ni problème bu ko tooñ. dama bëgg tooñ de. <laughs> plainte laay bind léegi yoo xam nga ma yow ñoo far. amul lii nii nii nii rek. xaar ba ñu installé ministre de la justice bu bees bi. la nuyu Adja nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi laa bokkal plateau bi. sax na ñoom xamuñu ko nag. foog ni ci ay caaxaan nga ne. Alaaji MLK ak sunu grand. Samba Gueye bokk ci fédération sénégalaise de basketball. nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa jàkkaarloo comme chaque lundi ñoo waxtaan li nga xamante ne moo jëm ci wàllum tàggat yaram. te nag démb ndax euh, ajara ñi nga xamante ne wooy moo di waa fédération sénégalaise de basketball démb dañoon amal li nga xamante ne moo di seen AG euh, boo jëm ci wàllum information mm-hmm. doon indi ay dossiers yoo xamante ne war nañ ko publier wax ak ñi nga xamante ne ñoo seq wàllum basket yi mm-hmm. waxtaanee ko mm-hmm. waral tey ñu war a waxtaanee ñu invité ki nga xamante ne moo di chargé de communication bi di Samba Gueye mais basket boobu la bëjool ne xam naa dañ koy càpp foofu noonu waaw amul benn MLK notre oustave en parallèle waaw <laughs> <laughs> euh, teg ci yóbbul bés bi et on essaie d'avancer. voilà Adjara maa ngi lay nuyu di nuyu Ibrahima Balde euh, di am mbégte retrouver Seynabou Ndiaye ci plateau ce matin c'est à nous namoon nañu ko lool. Mm-hmm. Euh, Bal euh, Al Babou. Oh c'est des choses yoo xam ne dama ko <laughs> di nuyu suñu suñu gan gi. Adjara li mm-hmm. Oustaz Abdoulaye Gaye indi am na solo trop yàlla dafa poser question mu ne li ma taquluuna ma la taf'aluun lan moo tax du ngeen jëfe li ngeen di wax kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafal na xam ne bàkkaar bu rëy la fa yàlla di wax loodul jëfe kon euh, il doit toujours y une concordance entre la parole et l'acte et nous ne serons pas jugés d'après ce que nous disons ah. mais nous serons jugés d'après ce que nous faisons mm-hmm. yàlla du fay jëf du fay wax baay jëf kon euh, nañuy fexe ba li nga xam ne euh, moom la ñuy wax mu nekk loo xam ne lu méngoo la ak li nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy dund euh, lu jafe la nag loolu mooy je l'habitude de le dire et ça je le tiens de d'un grand formateur dafa faral di wax du sa ay waxam je crois que Mao moo ko doon wax mu ne si on ne maîtrise rapport ses avec soi on ne peut pas maîtriser ses rapports avec les autres donc loolu am na solo trop il faut que d'abord nit ki li ngay wax mu méngoo d'abord ak yow li ngay dund pour mu mën a nekk ko ba pare pour jëf bi mën a yomb pour jëf bi mën a am na am na solo c'est vrai que Sénégal moom tamit euh, Euh, bokk na ci jikko yi moom euh, yu bëri dafa nëbbu. Mm-hmm. parce que en général euh, nit mën na ñëw ak ay wax peindre le tableau. Mm. ba nga def ko confiance jox ko day feeñ sax ba ci ba ci jokkalante yeeg liggéey bi. day dem ba ci day dem ba ci loolu tey jii mën nga am confiance ci kenn. mu wax la ay kàddu ne la waaw dinaa la defal lii dinaa la defal lii wala dinaa la defal lii nga am confiance ci moom mais juste pour t'avoir mën na la fenn wala mën na la. Euh, lëbëje sa bopp ba nga xamante ni li muy wax euh, du jëfee ak lu muy méngool donc yooyu yëpp day andi ay frustration waaye ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, nit yi mais bon comme oustaz Abdoulaye Gueye moom mi ngi mi ngi fi donc toujours dañuy rappeler rek dañu yeewaat ci li nga xamante ni moom mooy l'essentiel mooy mm-hmm. que ni voilà jikko yu baax. def naa ni moo gën gën a am solo sax ñi ñu jiite li ñuy diggee ak ñun. dafa war a méngoo ak li nga xam ne mooy acte yi ñuy posé. mais malheureusement tel n'est pas le li ñuy dig bu ñu soxlaa ñu fal leen. Mhm. ak après la ñuy def. Mhm. day day mooy li Ibou Balde wax donc euh, on enchaîne avec l' actualité sportive euh, Babou Ndour. ah da nuyu ba pare après dugal instant jum après ñu wóyal. <laughs> Babou Ndour demal Babou Ndour rek demal dama si sa invité mu nuyoo. Mhm. Adji Samba bismillah. waaw maa ngi leen di nuyu waa plateau bi yëpp. Mhm. Euh, di profiter peut-être di féliciter le ministre des sports mi nga xamante ne démb bokk na si ñi nga xamante ne ñoom ñoo euh, garder seen poste gouvernement bi di ko jaajëfal et puis mu ñaanal ko yàlla mu am ndam si li muy def et puis continuer liggéey bu am solo bi nga xamante ne mu ngi ko doon def sur le plan national et sur le plan international. Mhm. voilà mhm. waaw kon bisimilah. waaw kay. Euh, Samba démb amal ngeen waaw ñu fàttali rek ne mooy chargé de communication bu euh, fédération sénégalaise de basketball Samba démb amal ngeen li nga xamante ne moo di seen assemblée générale de l' information. danañ ci mën a jàpp. waaw effectivement démb moo doon je pense que depuis quatre ans troisième AG d' information bi nga xamante ne lañ doon def. Euh, c' est vrai que AG ñu si bari dañuy je pense que c' est important ñu expliquer parce que c' était AG d' information. xam nga boo liggéey une saison ba mu jeex euh, da ngay rencontrer le comité directeur. Mm-hmm. rendre compte sur euh, le bilan administratif et sur le bilan financier. donc ça a été validé le 16 février par le comité directeur. Mm-hmm. donc démb lañ def age bi et euh, je pense que pour une fois ce qui était bien engouement bi ci amoon parce que boo xoolee le nombre de clubs affiliés au Sénégal c'est 107 euh, sur le plan national et hier il y avait 93 clubs qui étaient présents donc c'était pour montrer un peu. les clubs importance bi ñuy jox âge euh, euh, euh, la vie du basket et heureusement que yàlla def na par exemple les tous les rapports qui ont été validés au niveau du euh, comité directeur ont été dirigés même peut-être à l'unanimité même s'il y avait quatre clubs qui n'étaient pas d'accord et loolu mooy démocratie mais au finish euh, les rapports ont été validés et puis jox mandat fédération bi pour que mu continuer liggéey bi nga xamante moom la def. ok mais euh, xale yi di waxee les nerfs étaient tendus quoi. Mm-hmm. démb tàngoon trop trop trop fi nga xamante mooy seen assemblée bi. est nga jaakaar ni loolu jaroon na ci ba nga xamante ne Sénégal bu dee bu dee intérêt Sénégal moo leen taxoon jóg est-ce jàpp na am na ñoo xamante dañoo jógoon juste maanaam pour ñëw euh, maanaam sotti ci cere ji suuf. bon je veux dire c'est Euh, mais dans les règles aussi. waaw dans les règles mais xam nga tey par exemple di nga nekk dans une fédération ou bien dans une dans une association ou bien même dans une société. li ngay li ngay def am ñu si àndul mais ñi si àndul c'est vrai que début di nga def le maximum pour essayer bloquer affaire mu demee mais il y avait par exemple le ministère des sports qui était présent euh, au début c'est vrai il y avait beaucoup de questions le pourquoi pour poser des questions sur le comment dire sur euh, l'ordre du jour mais au finish xam nga li benn waaye démb la sama sama copain yi dañuy toog ñun ñëpp ànduñoo ñun mais demee ñoo toogandoo naan ataaya ñoo def lépp mais bi ñu tegee foofu noonu ku nekk joxe na xalaatam discuter mais après on a euh, y a eu euh, le coordonnateur a remis de l'ordre pour que les travaux démarrent normalement et c'est normal ku nekk joxe sa xalaat joxe sa xalaat d' ci li d' ci mais au finish après euh, c' la majorité parce que après tout est yëpp dañu ko doon voté c' est à dire la demee si rapport financier bi rapport administratif bi et même xam naa di si ñëw moom les les potentielles yoo xamante ne fédération mu ngi ko bëgg def mais réformes yi c' vrai que ni ko expliqué c' est dire xam nga dañ dem si année élect euh, lañ nekk parce que mandat bi dafay jeex c'est pour améliorer le fonctionnement de la fédération. Je donne exemple parce que dans toutes les. mais mais li nga pour réformer mais ñi nga noonu parce que ñoom dañoo jàpp ne yéen ngeen bëgg maanaam maanaam mbuxum yi pour nga le juin incha allah mooy assemblée générale élective bi pour yéen ngeen ñëw jàll. ok très bien parce que démb xam nga biñ boobu c'est vrai que presse ñu ngi doon wax ñëpp a ngi si doon wax mais démb quand le président de parce que c'est trois choses yoo xamante ne dañ ko bëgg def benn retouche mooy le le secrétaire général xam nga le secrétaire général est nommé par le ministère des sports. ça veut dire par l'État. c'est coopté quoi. non c'est il est nommé c'est il est même pas coopté il est nommé mais ñun on s'est rendu compte que euh, c'est yeneen association yi duñ ko def pourquoi pas ñu koy def au basket on s'est dit ñun dañu bëgg que le le secrétaire général soit un un élu parmi les membres de l'association muy benn bi bi on a trois vice-présidents. et ces trois vice-présidents yow yaa ngi rappelé wu le le gros dossier bi amoon ren daaw mooy le dossier douane duc mooy mooy final bi amoon problème le président de la fédération est du duc le premier vice-président est de la douane. Mhm. donc ce gros dossier boo xamante ne trois personnes ñoo ko vidé c'est-à-dire le le vice-président et deux membres du bureau. donc il y a eu ce débat pour se demander est-ce que waruñu yokk le nombre de vice-présidents comme au football yoo xamante ne am nañ je pense cinq à six pour à l'association d'avoir beaucoup plus de crédibilité quand on gère des dossiers aussi importants. mais est-ce que jàpp nga loolu boo leen ko ba assemblée générale élective bi jàll ba pare nga xamante nga xaar nga xamante ne ñaari weer rek des si hmm. tëj ñi nga xamante ne loolu laa lay wax ni justement cest dire de l'extérieur loolu nga doon comprendre mais dem bi ñu expliqué parce que boo ko deful léegi dans quatre ans koy defaat parce moo demee noonu c'est-à-dire c'est des réformes il faut ko def ko avant mhm. mais amul benn réforme boo xamante ne day toucher le processus électoral je donne un exemple ñu bëri yaakaar ne club yi affilié ren dañuy bokk ci AG bi di ñëw le président la fédération de la dit pour nga bokk ci affaire bi il fallait nga affilier un an avant nga jouer d'abord mais ñi affilié ren rek dinañ jouer championnat bi normal mais duñ bokk ci processus électoral bi mhm. Mhm. baabu moom ko maye euh, tax ñu remarqué ne aussi que ñu bëri dañ doon euh, fustiger le fait que rapport yi yéex euh, balaa ñuy ñëw ci ci ci AG boobu la ban explication ngi leen mën a jox parce que ñoom ñu ngi wax ni que peut-être c'est euh, mécanisme la pour euh, justement am benn profit boo xamante ni wala benn avance boo xamante ni am ngeen ko ci wàllum élection bi. ok non en fait c'est vrai que les les rapports n'ont absolument rien à voir côté électoral bi cest à xam nga c'est vrai que man su maa ngi wax ngi dégg léegi ñuy wax benn affaire bu important c'est-à-dire xam nga man dem naa ay instances yoo xamante ne même sur réunion au niveau international mais les rapports le jour lañ la koy jox. xam nga avant c'est vrai on dit 15 jours à l'avance mais léegi le monde est devenu tellement digital mën nga génne benn affaire léegi léegi mu àgg foo xamante ne ku nekk interprétation yi ñuy jël benn affaire boo xamante ne dañ koy fu amul. Mais comme j'ai dit, les rapports étaient disponibles depuis le février. Mm je suis euh, vice-président chargé des sports de l'Union sportive de Wakam. Mm -hmm. Donc ces rapports, jot naa février, je les partagé avec ma hiérarchie au niveau de Wakam. Mais c'est pour dire que ne affaire bi c'est vrai que comme incompréhension bu bari moo ci amoon. Mm-hmm. mais je vous assure que démb. Mm-hmm. quand les explications dafa jàll les gens ont compris. Mm-hmm. et beneen bu gën important mooy que ne le comité directeur c'est 33 membres 33 membres yoo xamante ne euh, je veux dire. peut-être les, euh, la moitié ñu ngi à Dakar or boo xoolee maintenant la cartographie du Sénégal la majeure partie des clubs Dakar il y a clubs peut-être je te parlais tout à l'heure de 107 clubs les les les responsables des clubs des régions ont, ont dit mais pourquoi le comité directeur ne devrait pas être représentatif sur le plan national. Okay. Ce sont ces genres de questions voilà. les gars posé. Mm-hmm. Mais c'est pour dire que xam nga tey euh, élection man dama koy wax ñi ma bokk ña mën na leen élection ku mu neex nga bokk ci. Mhm. ku mu neex nga ñëw teg ne dama bëgg a nekk président fédération mais ku mu nekk dans les règles de l'art éviter les paroles yoo xamante ne nii dafay heurter. Hmm. éviter des paroles yoo xamante ne nii dafay indi coow. parce que ce basket ne mérite pas man mii tey li ma nekk nii peut-être que élection yi di ñëw du ko nekk. et ce que ça m'intéresse mais c'est pour dire que. il faut que ñu am raison garder ku nekk ñëw tey ñu réfléchir ensemble sur le processus parce que. fi ñu jëm dafa bari. on a beaucoup de kii ah, euh, yu <coughs> man euh, sama laaj euh, dafay xaw génn tuuti ci xëy na ci AG assemblée général bi. sama laaj mi ngi jëm ci différent wala bu fekkente ni y a différent diggante ligue de Dakar de basket ak fédération bi. parce que lu yàggul dafa mel ni dégg naa fi coow loo xam ne jëm na ci mm-hmm. kan moo war a def lii kan moo war a def laa. lan mooy problème bi exactement. ok en fait xam nga Ligue de Dakar cest à une ligue et un démembrement de la fédération. C'est-à-dire que l'an dernier, la fédération avait autorisé aux ligues d'organiser. Mais Rennes, il y a eu un retard parce que, j'ai les dates, parce que le 13 décembre, le 13 décembre, la fédération avait envoyé des courriers parce que les clubs avaient dit de deuxième division avait dit il faut que ñu commencer en même temps que la première division. Voilà. parce que on paye des salaires mars pour démarrage de la deuxième division. maintenant il y a eu mhm. au niveau de euh, la Ligue de Dakar mhm. et le président fédération a maintenant demain c'est lui qui va il a pris ses responsabilités pour dire que effectivement parce que la D2 c'est la fédération qui doit organiser. et pourquoi euh, club yi club Ndakaaru yi ñoom ànd ñu ci bëri ci ñoom ànd ak ligue bi au lieu que ñu ànd ak euh, fédération. non du tout c'est justement xam nga nga dégg. Ah. c'est que li nga doon dégg noonu déggin bi. Mmh. moom moo amul benn benn kii bi mais. Mmh. on a rencontré les clubs récemment on avait dit que euh, les clubs vont boycotter moi qui vous parle je le coordonnateur de la il y a deux journées les matchs se sont joués normalement kenn du man ma accepté di fay sama salaire benn Ligue Dakar ñëw di ma di je l'accepterai pas man tey su ma ko defoon au niveau de l'OS bi nga xamante ne je suis en D2 mais on va me démettre mm-hmm. je peux vous dire que ne c'est des clubs responsables le championnat se joue normalement on a juste un petit problème il trois ou quatre clubs yoo xamante ne dañu leen deux fois et j'ai y a jamais eu de boycott kenn du ko nangu parce que tey jii muy ligue muy fédération et pourtant la ligue et la fédération on s'est rencontrés je pense la semaine dernière discuter xam photo foofu discussion am euh, euh, euh, résultat na nga déggoo lay am mm-hmm. tey jii mënuñu ñàkk bañ a déggoo mais la deuxième division et la première division c'est sous l'autorité l'autorité de la fédération les ligues ont l'obligation ont, ont, leur, ont, ont la responsabilité de gérer le basket su au au niveau euh, de la petite catégorie c' est ça loolu mooy seen job maintenant fédération bu ko neexee mu dénk. bu ko neexee mu jël mais quatre clubs yi nga mujjee wax te ñu nekk ci D2 nga ne boycotté wuñu xëy na dafa am ay jafe-jafe yu ñu am euh, yéen yan ban saafara ngeen ci. non loolu fédération mënu ci am benn saafara. parce que ah. xam nga nit ki yaa engagé wu ne da ngay dem. da ngay am nga tu as les moyens mhm. pour y man woo naa benn équipe bi. Mhm. daf doon cité son tour son nom dafa ne ma euh, dafay désister. Mhm. le pourquoi bu bindee kuréel nañ ko xam. ñaata équipe la équipe yooyu kan ak kan la cadre yooyu. au moins ñenn je peux citer par exemple en centre formation Anne Marie Dior. Mm-hmm. ils sont en garçon et en fille. Mm-hmm. les garçons jouent les filles ne jouent pas. Mm-hmm. deux fois je les appelais ils m'ont dit que finalement dañ désisté ma ne leen ñu bind un courrier à la fédération. mais même bu ñu bindul sax les règlements sont clairs ku jéewul trois ku forfait trois fois. dañuy éliminé mais aussi par courtoisie dañ leen di woo xool ba xam. mais c'est pour vous dire que ne ça se passe normalement. man j'ai assisté à un match à la cité CSE. mais tout le quartier était là-bas c'est pour dire que. deuxième division moo gën a sax am benn excitation engouement au niveau au niveau au niveau. mais bi ñu doon aussi wax ci wàllum bilan bilan parce que je pense que ni euh, c'est le moment aussi de de parler de bilan euh, boobu ba léegi euh, yéen fédération sénégalaise de de basket yéen jéego ngeen teg. yu bees wala yoo xamante ni tax na euh, basket bi ñu mën a wax ni que peut-être que dina dina génn ci kii yu mu nekk parce que moment bi moom ñëpp euh, ñu ngi ñu ngi am ay ay xel ñaar ci fonctionnement basket bi ak problème yi nga xamante ni ñoom ñoom ñoo ko wax incompréhension ou pas tey bu ñu doon wax bilan euh, lan nga ñuy tegal sur la table. pour dire vrai man man bilan je me l'interdis que tollaguñ ci. Mm-hmm. parce que man je suis chargé de com man du ma loo xamante ni suba day indi yenn affaire yi mais xam nga yow mii di wax nii. Mm-hmm. tey en tant que. Euh, personne extérieure. Mhm. boo xoolee résultat du basket. vous savez que les résultats sont tellement positifs je dis même sur le plan euh, basket. Mhm. xam nga tey boo xoolee euh, Sénégal. non na wax tey. ça fait ça fait des années ça fait des années. Mhm. dematuñu woon la petite catégorie. bi ñu jógee si nu mu tudd bi ñu ama bi ñu suspendre la petite catégorie. normalisation dama si ñëw. on a mis deux ans pour créer une équipe. pour ñu dem jouer ci xale yi. Mhm. un an dem nañ Bamako vice championne d'Afrique dañuy dem coupe du monde au niveau de filles ñu ngi préparé fii gis nga résultats yi ñu am au niveau de Tenerife les garçons sont qualifiés à la coupe du monde. su le plan national <clears throat> boo gisee xam nga tey mu lay jox benn exemple gis nga équipe nationale garçon yi di jouer nii y a minimum deux à trois joueurs qui jouent dans le championnat local et qui sont titulaires et qui se battent en même temps que les Handal Mena en même temps que les Gorgui deuxième division bi li si gën important man c'était mon combat man je disais en tant que président de club de prime de de de président de club c'était anormal que ñu engagé wu di jouer 3 4 matchs les équipes de deuxième division jouent à peu près le même nombre de matchs que la première division mmh. maintenant effectivement mën na am ay amélioration et ça on l'accepte mm-hmm. tey le moment venu et on compte le faire c'est-à-dire que mën nañ toogaat ñun ñëpp discuter pour xool qu'est-ce qu'il faut faire et la FIBA la fédération internationale euh, de basket a classé le Sénégal parmi les meilleures fédérations mondiales. Mm-hmm. en Afrique nous faisons partie de parmi les quatre. pour un plan de développement de 2018 jusqu'à 2023, raison pour laquelle, vous voyez la dernière fois, mm-hmm. la, nous, on avait demandé à ce que la fédération nous donne des moyens pour nous aider les Mais là, le degré d'implication réelle aux anciens gloires, nous avons des médailles, voilà, gagné au Sénégal, nous avons un degré d'implication véritablement si bien fédération. Je donne un exemple. La fédération sénégalaise de basketball, on a mis une commission des joueurs. Mm-hmm. commission des joueurs qui est le, le, le président est Hassan Ndiaye. Hassan Ndiaye, c'est un ancien basketteur, ancien en Afrique. Et lui, il joue important dans le fonctionnement. Mm -hmm. par exemple, en, en, 2000, en 2017 à Bamako, la NBA était là-bas, qui important. Mm-hmm. C'est-à-dire mm -hmm. que Taï, tout le monde est légitime, mais Taï, mm-hmm. on affaire à des professionnels. Mm-hmm. gis nga des personne comme les Gorgui Sy Dieng il faut des personnes yu am seen calibre ñu leen mën a comprendre dund ñoom li ñu dundoon pour mën a liggéey ak ñoom. noonu moom moo am par rapport ak ñi effectivement parce que je vois Assane Ndiaye boo xamante ne àgg na foofu noonu mën na waxtaan ak ñoom mais pour dire que vraiment c'est mais que juste que xam nga ñu ngi war a amal maanaam assemblée générale bi élective bi le 27 euh, juin bi ñu incha allah mais est ce que nga jàpp na nga yàgg dara tamit ñu am li nga xam si si la si la mooy suñu góor yi war a dem maanaam fële ca Chine pour amal coupe du monde basket bi est-ce que loolu nga jàpp loolu tamit euh, on ne jamais quoi bu dee wala ngeen war a continuer est-ce que loolu du indi benn maanaam benn perturbation si bopp si bopp xale yi. pas du tout moom la wax léegi c'est des professionnels. dafa dem ñun ñu jël en juillet dem gagner la coupe d'Afrique à Yaoundé en trois mois. Mm-hmm. que tout est parce que il faut pas oublier que le basket en grande partie. est sous la responsabilité de la tutelle et la tutelle ñoom am nañ programme yi yëpp il travaille en continuité avec la fédération pour une bonne planification ci compétition yi ñu jëm yëpp hmm. mais je pense que du ci am benn mais pour la dernière question ñu après ñu libéré la euh, maanaam est-ce que euh, seen candidat Babacar Ndiaye dina nekkaat candidat ci élection yi ah kon candidat seen candidat la ñoom. le moment venu non en fait on va défendre bilan bien ah, sûr on va défendre un élection c'est vrai que dans quelques mois mais ñun li nga xamante ne mooy suñu obligation uh-huh. c'est de gérer le quotidien c'est de gérer les dossiers qui sont là uh-huh. à savoir préparer la coupe du monde à savoir préparer continuer à gérer le basket uh-huh. mais ce qui est important mooy que ne man c'est vrai je suis chargé de comme en même temps chargé du marketing ce qui fait plaisir mooy que ne on joue le basket depuis trois ans sans jamais d'arrêt pour le problème financier et j'en profite parce que balaa koy fàtte démb au niveau de notre bilan Le président de la fédération a remercié la DSTV pour la collaboration franche depuis des années mm-hmm. et vraiment dit remercier la direction euh, Adama Kande et son équipe, la direction Madame Diaye qui nous appuie euh, vraiment sans euh, demander beaucoup de moyens et c'est une collaboration mm-hmm. franche. waaw di ko jaajëfal rek moo nekkoon sunu euh, gan euh, jëm ci wàllum euh, tàggat yaram. si matinal bi di ko dañ ko war a libérer léegi parce que dafa am ay contraintes professionnelles quoi dañ mu mu waaw sàmm <laughs> jaajëf ok inchallah donc si noonu la ñuy wooyee euh, continuer actualité ba tey di waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy euh, actualité week-end bi nga xamante ni euh, riche na trop ci wàllum réorganisation remaniement ah MLK tey gis nañ ni que ni gouvernement bu yees hmm. juddu na Macky 2 Macky 2 na Euh, ni ki xaar bi nag xawoon na yàgg trop. Mhm. Euh, Macky 2-1. Macky 2-1. yow foo teg loolu mais. Macky deuxième mandat. premier, premier gouvernement ah. Ah, ah. la formule <laughs> la formule euh, est bien recherchée. très mhm. bien muy 32 ministres. fanweer 35. parce que avec les secrétaires d'État mhm. yi nga xam ne ñëwaat nañu. c'est pas la première fois. secret des amoon na. ñu dem après ñëwaat. Mhm. muy 35. et on nous avait annoncé 25 ministres. si su ma juumulee. non on avait parlé d'un gouvernement restreint. réduit réduit. Mhm. voilà wàññi daal mais malheureusement c'est-à-dire on. y ah, ah, en avait 39. 39 39 voilà jóge ci 39. ñëw ci 32 32 mm-hmm. la ñu waxoon daal. bon quelque part pour man c'est acceptable quoi. Mm. man mm. non sérieusement mm. non c'est vrai. Ah pour man 35 minutes c'est bon. <laughs> loolu sama loolu man sama gis. sa conviction ñu bëri nañ kon ay problèmes. waaw ah. non dañu bëri ay problèmes et puis boo xoolee sax. mais nag aussi quelque part am na ministère bu ñu sendee personne n'a compris. Mm-hmm. muy ministère de l'économie des, des finances et du plan. Mm-hmm. mais scission boobu kenn comprendre lan moo koy expliquer ak Amadou Ba également ak euh, jéego yi nga xamante ne jot na ko def ci boobu le ministère aussi démb bi ñu déggulee turam ci foofu parce que ñu bëri fa lañ ko doon xaaraat mm-hmm. ñu gis ni déjà euh, xaajale nañ ministère am ba noppi moom ñu jëlee ko fa mm-hmm. yóbbu ko affaire étrangère dafa mel ni sax dañ ko mi parce que <laughs> ba pare moom ci groupe consultatif bu mujj bi rek <laughs> gis nañu vraiment liggéeyu bi nga xamante ne ni ko jot na ko fa def donc ñu bëri xalaatuñu woon ni mm-hmm. euh, dina ci euh, démb observation yi nga xam ne jot naa ko déglu ci ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu ñu ci bëri dañ jàpp ni mhm. Amadou Ba il tenait vraiment à ce ministère ah. donc lu tax ñu jëlee ko fa yóbbu ko mhm. affaires étrangères parce que yàgg na fa ah, ah, il a duré à ce ministère et mhm. puis ku xam ministère ku xam gouvernement xam ne ministère des finances mais kooku c'est le c'est l'homme le, le plus puissant c'est comme gars yi di wax ni John est-ce que am na ambition voilà ñi ñaa ngi koy wax aussi parce que mhm. leneen lu ñu mën a jàngat ci gouvernement bi mooy ndaw ñi ñi ngi ci bu baax. ak jigéen ñi <laughs> mhm. bële la woon. ana bu ci ci boobu noonu. mais côté boobu day naan que gouvernement bi ñu nekkoon ci jigéen waaw par rapport ak nombre bi. nombre bi waaw mais par rapport ak nombre boo comparé. parce que démb bi ma déglu bi ñu dégloo euh, Boun Dionne daf ne. mais c'est diamétral mu wax c'est une femme sur quatre. mais li li am nag li mu wax ak li am bokkul. waaw loolu moom loolu mën na nekk. mais man fu ma fu may andee sama inquiétude par c'est par rapport ak peut-être formation bi comme ni nga koy waxee nii parce que ça a pris beaucoup de temps ci pays boo xamante ni ils sont restés quand même six mois sans sans travailler hein, après élection yi ñëw euh, donc je me dis. Euh... man je pense que c'est une for c'est un gouvernement formé dans la douleur. Mm-hmm. li tax mooy euh, accouchement bi yàgg na. Mm-hmm. dafa dafa dafa parce que on a attendu longtemps. très longtemps Macky Sall ñu euh, le kañ. ñu ngi ko fal 24 février conseil constitutionnel daal di kii une semaine après. une semaine après boobaa ak léegi ça fait combien temps. Euh, doolu si campagne bi avant commission des commission de de de conseil constitutionnel kañ la résultat yi. est-ce que du ay côté 7 mars xaw ma lañ. waaw mais de toutes les façons yàgg na. Mm-hmm. Mm-hmm. dans un pays boo xam ne tout est urgence. voilà mm-hmm. tout est urgence c'est-à-dire que on nous parle aujourd'hui de fast track. fast track foofu la waroon commencer. vraiment maanaam fal nañu la rek. au boulot <laughs> mais malheureusement. ah man doon man doon naa xaar foofu le président ci li ma jàpp mooy expliquer loolu xëy na euh, Macky Sall li mu yenu dafa bëri. surtout ci wàllu alliés yi avec les bon malheureusement les transhumants. Euh, je m'excuse vraiment transhumance c'est un mot à la euh, xam ne man kiiwuma ko mais euh, ñi nga xam ne dewoon nañu fekki ko amul kenn ci ñoom koo xam ne en tout cas tur yu rëy yi ñu doon dégg. Mm-hmm. ay moom ñoom Modou Diagne Fada ay Aïssata Tall Sall Hélène nag nee na. Macky Sall am na am na am na agenda caché maanaam am na <laughs> buuñaa bu mu leen am na tàngal bu <laughs> mu lax xëy na peut-être la leen donc ñuy wax également ci ministère bu jëm ci wàllum pétrole gaz nabu euh, ñu gis ni que Matar si nekk euh, ancien DG je pense euh, Sénélec moom moo ko moo ko yor boo xoolee ci gouvernement bu bees bi man li ma ci gën a frappé demb ci bi ma gisee bi ma déggee yenn tur yi ak jot ci liste bi ci recherche yi ma jot a njëkk def mhm. mooy ni que li ñuy faral di wax l'homme qu'il faut à la place nekk na problème ci biir mais nekk na itam benn côté boo xamante ne ni que ku ci mel ni euh, ki ñu dénk wàllub commerce bi nekk na ku yàgg ci wàllub commerce nekkoon na ci direction mhm. commerce intérieur et cetera mhm. ñu jël ko teg ko fa lu jëm ci pétrole ak gaz nga jël ku nekkoon liggéey ci wàllub énergie teg ko mhm, fa et cetera donc je crois que euh, côté boobu noonu bëri na ci yenn recherche yoo xam ne boo ko defee ci nit ki ak profilam exactement dafay dafay dafay dugg ci euh, fi nga xam ne fa lañ ko war a teg ndax miin na ko am déet maintenant soulever itamit démb te ñu bëri seetlu ko naqarlu ko mooy euh, mbirum euh, ñi nga xam ne dañu leen épinglé te président de la république ci ay jamono bu doon wax ni daf cee mmh. euh, tegoon tegoon loxoom naan yenn dossier dama ci teg sama loxo ku ci mel ni directeur bu COUD mmh. Cheikh Omar Anne tey moom la ñu jël jox ko ministère ñu ci bëri nit ki exactement ñu ci bëri démb ils étaient mmh. par rapport ak ak loolu donc moo tax ma ne côté l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ci gouvernement bu bees bi am na ci ñoo xamante ne teg nañ leen fa ñu leen war a teg xëy na mais ñu ci bëri tam euh, jàpp nañu ni moom Cheikh Oumar Anne nomination ci xam fa nga xamante ne ni que fa la ñu ko teg euh, waroon nañu ko xoolaat. mais est-ce que quelque part aussi nga euh, may ma est-ce que quelque part aussi c'est pas un gouvernement provisoire est-ce que mënuñu xaar ay ah, que buñ jonn moom dañ ko fa teg le temps que ñuy ñuy def réforme bi non mais mhm. il n'est pas dans le secret des dieux mhm. man damay laaj dama ne dama est que lii c'est que une fois le poste de premier ministre xëy moom dina si tontu en tant que spécialiste. Euh, sur la question mais sànq Nabou euh, dafa affaire mooy euh, Cheikh Omar Anne. Uh-huh. ne dafa l'homme qu'il faut à la place qu'il faut man dama jàpp ne Omar Anne peut-être yi taxal nañ ko. Uh-huh. moom xëy na xëy na conférence de ba weddi après ci la gis ci presse bi gars yi génn xamante ne moo di genre rapport of nag yooyu mais ñu am na ñu bëri jàpp xamuñu ne moom moom nee na ko tuumaal voilà ne moom moom naam professeur d'université la uh-huh. ñu Sénégalais yu bëri xamuñu xamuñu ci loolu école supérieure polytechnique la nekk voilà mais daal bokk na ci lu leeral ngir mu leer ci waaw ñebe beeg yooyu waroon nañ ko <laughs> leer et puis surtout euh, ah, euh, ci le fait que euh, région bu nekk tamit gis Euh, jëm nañ ko représenté ci ci biir gouvernement bi yow la la lay. waaw bii pas Géejawaay. ah, ah? sax gis bon Kolda amoon na <laughs> Balde. Kolda aussi mais Géejawaay euh, ngeen ah, ko. waaw waaw nañ ko ci nee nañ nee nañ Fatoumata am na tamit ak ministre. moom moo nekkoon euh, PCA Boulonase. PCA boobu Boulonase mhm. donc. en tout la région de Louga elle est bien servie. waa région de Louga loolu lañu wax de ils ont deux euh, quatre ministres quatre ministres Moustapha Diop Aminata Mbengue Ndiaye mmh. Samba Ndiobène Ka reste à voir ndax si seen a dëmal non am <laughs> solo amul Linguère dafa xaw a excentré wu tuuti ah mais mais on est bien <laughs> a deux mais mais mais nag xam nga comme ni ñu koy waxee man damaa gëm ni euh, suñu analyse yi xam nga gouvernement l'homme qu'il faut à la place qu'il faut man gëwuma loolu. pour c'est des histoires. non c'est des histoires xam nga lu tax. Mm-hmm. président su demee ba toog jël xalimaam fal nit xëy na daf ci am yaakaar mais ñun bon man en tant que sénégalais damay jàpp ni fa ma ko war a jugé mooy acte yu muy nar a mm-hmm. su fekkee ni Cheikh Oumar Anne effectivement am na ay ak mbir yu ñu ko tuumaloon te mu ngi dem ensegnement supérieur dara du fa yomb ndax syndicat mm-hmm. d'enseignants yi xam naa ni moom. c'est c'est c'est un espace démocratique. a hérité d'une patate chaude bon. espace très démocratique xam naa si dara. de même mais... que de même que également euh, ci euh, ministère de de l'éducation. waaw éducation waaw Serigne Mbaye Thiam gis ñu fa teg foofu itam lu lu metti la. donc du coup on, on attend de actes. Mhm. Mm-hmm. le temps va sara sera le meilleur juge. donc mhm. du dañuy xaar. ñu xool lan la ñuy teg mhm. suñu tegee nag am na ñoo xamante ne souvent dañuy faral di jàmmaarloog ñoom te sénégalais yi tamit ñu ngi observé donc du coup quand tu vois que ñi ñu naan ay nit def na lii nit def na li man damaa gëm ni rek xëy na Euh, nañ bàyyi ba si kanam rek liñ naan wan wànneen ci xaw ma. mu jël ba li ci kanam rawul gët leen xaar. <laughs> donc loolu ñuy xuusee euh, ci thème bi ñu choisir ah de suppression poste premier ministre mais man bëgg naa avant ñuy dugg dans le vif du sujet ñu daal di seetaan parcours ki nga xamante ni moom mooy euh, le premier ministre pour le moment <laughs> Boun Abdallah Dionne donc rek ñu seetaan ko daal di revenir sur le plateau. a reconduit Mohamed Boun Abdullah John au poste de Premier ministre et lui a confié une casquette supplémentaire. Le chef du gouvernement a accepté la double charge avec son sourire et sa déférence légendaire. Né le 22 septembre 1959 à Gossas, région de Fatigue, Mohamed Boun Abdullah John a travaillé comme directeur de cabinet aux côtés de Macky Sall, respectivement à la primature et à l'Assemblée nationale de 2004 à 2008. Il a fait toutes ses études supérieures en France. Il est titulaire d'un diplôme de troisième cycle en économie internationale et globalisation, spécialité politique, économique et sociale de l'université Grenoble de Pierre Mendès France et d'un diplôme d'ingénieur de l'Institut d'informatique d'entreprise du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Il reconduit au lendemain des élections législatives de juillet 2017 après avoir conduit la coalition présidentielle à la victoire. Ce proche de Macky a par le passé été ministre auprès du président de la République en charge du suivi de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, PSE devenu le préférentiel de la politique économique du gouvernement depuis 2014. Mahmoud Boun Abdullah John a servi à l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 2008 à 2014, d'abord au poste de représentant résident en Algérie, ensuite directeur du bureau Afrique à Vienne la coopération industrielle sud-sud ONUDI. Sa carrière professionnelle en qualité d'ingénieur technico-commercial a débuté la Banque centrale

donc euh, ñoo ko déggandoo ah mu nekk euh, parcours boo xamante ni am na solo ah, loolee. mais noonu la ñuy daal de. Euh, portrait bi yaa ngi def ko ci olof. noonu la ñuy daal di woy ah, <laughs> invité man xam nga wax ju bëri ji du ma ko mën a ah. daal di woy nuyu suñu invité di professeur Gouda Mboup nga xamante ne rejoindre nous sur le plateau di constitutionnaliste. maa ngi lay nuyu di am mbégte di bokk ak yéen plateau bi di fi ñëw sax su ne. saka ñëw garaaw. Mm-hmm. ñaata ngeen sax yéen Sénégal <laughs> bëri woo leen de. Ah, dañ leen di wër ba sonn pour kaale ak waaw xam nga euh, euh, juriste yi dafa am donc euh, spécialisation comme ni mu amee ci médecin yi. Mm-hmm. ni mu amee fu nekk donc boo ñëwee fac donc euh, ñun dañu am lu ñuy tuddee summa divisio mhm. donc euh, dafa am lu ñu tuddee droit privé ak droit public mhm. donc constitutionnaliste yi ñoo bokk ci publiciste yi mhm. maanaam li nga xamante ni donc quatre matière moo ko tënk mooy lu jëm ci état mooy droit international droit administratif droit de finance publiques ak droit constitutionnel maintenant li ci des droit privé la privatiste yi ñoo koy def ah. mais loolu ce n'est que des divisions pédagogiques ah ni publiciste mu wax ci constitution noonu la privatiste mu ne wax mais spécialisation aussi daf ci am solo. départu Ismaïla Madior. waaw sunu yow ban jàngat nga ci sunu collègue la yu mu euh, ay yu dëgër la ba waroon na mën a toogaat yeggali liggéey. waaw xam nga loolu jugement de valeur lay doon. Ah. te duma ko mun a def. Hmm. ma lu ma mun a def mooy jaajëfal ko. parce que ñun bu fekkee par exemple kenn ci ñun dañ koo jël def ko ci gouvernement bi fierté lay doon pour ñun ñëpp. beneen bi ci topp je pense que def na def na liggéeyam comme ni mu ko war a defee en tant que ministre. donc euh, conduire na tamit ay réformes yu am solo. damay toog rek di wax toujours ni pourtant dañuy man parfois sax toujours toog naa fii wax ko ci émission décryptage. moom bokk na ci ñu bind lii. waaw. reforme bu bees bi par exemple moom moo ko moo ko def mu am solo muy réforme de 2016. mu indi lu bari sax ci coppite constitution ba sax boole ci sax tëjaat mandat président bi par exemple. Mhm. donc loolu dafa am solo. boo xoolee am aussi am na réforme boo xam ni tey ñu ngi wax ni nit ñi dañuy bëgg a marche. Mhm. par exemple wala dara di nga gis ni tey Sénégal képp koo xam ni da nga am problème jafe-jafe ak administration. ci 48 heures mën nga koo joytu devant la cour suprême nga am décision de justice. Mm-hmm. loolu aussi ci lu mu def la. mais mm-hmm. maintenant bilan wam man du maa koy jugé Sénégalais yëpp ñooy ànd juge ko mais je crois que donc président de la République mooy apprécié donc man maa ngi koy jaajëfal ci ci ci ci ci loolu. Mm-hmm. ministère euh, primature c'est plus de 48 milliards de, de budget euh, par an. ce qui veut dire que suppression dina am incidence inci incidence ci wàllu koppar dinañu mën a yaxanal tuuti koppar waaye doo économiste kon du ñu dugg ci wàllu koppar bi constitutionnaliste nga euh, coppite gi maanaam dindi gi ñuy fas yéene dindi primature lan la ban jeexit lay am ci téere bi ñuy woowee constitution waaw am na solo d'abord dama bëgg commencer ni la démocratie n'a de prix mais elle a un coût état nuñ ko tënkee dafa am lu mu taxawee te constitutionnaliste yi toujours peut-être que bu ñu leen woowee bu état taxawee rek dañ leen di woo. Mhm. parce que état li koy matérialiser mooy sa constitution. Mhm. parce que moo koy tënk parce que dëkk bu ne am na constitution. Mhm. Arabie Saoudite sa constitution c'est le Coran. donc nit ñi dañuy defee ni constitution mais constitution mooy texte bi gën a kawe. ci réew. loi fondamentale. très bien donc moo tax ba nga xamante ni su fekkee dëkk bay laïque la comme ñun dañ koy jël bind ko ñu boole ci ñëpp. Mm-hmm. na dëkk yoo xamante ni par exemple dañuy wax même les traditions donc voilà ñu jël texte boo xam ne c'est un texte boo xamante ni ci euh, diine la tënku comme ni ma ko waxee Arabie Saoudite ñu teg ko. Mm-hmm. waaye dafa am bànqaas yoo xamante ne pour état mën a dox il faut mu mën a am surtout lu ñuy tuddee état moderne. Mm-hmm. te état moderne li ko lal mooy ay pouvoir pouvoir yooyu nag dañu ni benn nit rek war ko mën a téye. parce que su ko benn nit téye du ñu nekkati ci démocratie mais ci leneen la ñuy nekk c'est-à-dire dangay ngay nekk ci autoritarisme wala nga nekk ci dictature ba nga xamante ne looloo tax ñu bëgg a éviter confusion des pouvoirs ñu ne léegi li nga xam ne nguur état moo ko yor dafa bari doole il faut ñu fàccee ko cest dire il faut ñu diviser ko bu ñu ko diviser nag dafa am lu ñuy doxal muy ñett acte doxal ak jël ay loi boo ñëwee nag ci ki war a doxal muy exécutif exécutif nag dafa am nu muy doxe boo boobu tamit constitutionnalistes yi dañoo xool ni nañu ko def ba nga xamante ni day am ñaari catégorie régime pour ma kii ko mu gën a gaaw mhm. muy régime présidentiel ak régime parlementaire régime présidentiel soo ko bëggee xam rek mooy régime américain mhm. États-Unis damay wax ni toujours da ngay gis sunu homme politique yi sax dañuy ñëw rek ni Sénégal régime présidentiel la am alors que loolu régime présidentiel président domine tout à fait mais dañuy dégg le mot présidentiel defee ni non le régime présidentiel c' un régime d' équilibre des mooy une séparation rigide boo xoolee constitution États-Unis cet article la boo ko liiree boo liiree section bi comporté président da nga naan moo yor doole ji nga yor section bi comporté congrès da nga naan doole ji fa la ne nga gis section bi yor justice ak cour suprême da nga naan doole ji fa la ne lañ tuddee le système de check and ñun nag comme ñun dañoo am trajectoire am donc ñu coloniser ñu et cetera bi ñuy ñëw suñu constitution dafa am nañu ko tëddee donc ñu am lu ñu ci jël mais lu ci bari ci France lañ ko jëlee te soo xoolee suñu constitution lu ci bari ci régime parlementaire lañ ko jëlee te régime parlementaire mooy régime boo xamante ni ala kuli alin day am gouvernement ak premier ministre loolu moo undu premier ministre bu Sénégal parce que régime bi ñu am suñu président de la République kenn mënu ko atteindre. Mhm. mënul am responsabilité pour a. man man li may laaj euh, dañoo wax ne du yàggati du yàggati euh, du yàggati dara. dinañ yóbbu maanaam euh, li nar a dakkal li nga xamante ne mooy euh, euh, maanaam premier ministre fële ci assemblée nationale léegi ma jàpp ne est ce que loolu bu ñu ko defee ba gars yi ba ba ñu adopté ko fi nga xamante ne moo ci assemblée nationale est ce que nguur gi dafa war a tabaat maanaam beneen gouvernement wala dafa war beneen beneen remaniement am déet <laughs> waaw dama kontaan sax parce que sa collègue bi da ko wax léegi dañu ñëw mu ni Macky 2 1 mhm. man sax xaw ma tax mu wax ko mais c'est formule magique dem mhm. wax naa ko ci benn rajo ni leen man dama dégg premier ministre mu ne ci bés yi di ñëw. danañu dindi poste premier ministre. gouvernement institution la. article six bu constitution mooy wax. Hmm. institution bu Sénégal mu ne président de la république la. cour des comptes mu ne conseil constitutionnel mu ne haut conseil mu ne assemblée nationale ne gouvernement. Mm-hmm. donc yooyu ñooy institution yu ŋànk Sénégal. Mm-hmm. donc sooy ñëw bëgg fi jëlee. premier ministre nga xamante ne moo jiite gouvernement ak yeneen ministres yi parce que le gouvernement institution collégiale la mu ngi jugee fu ñuy tuddee Angleterre loolu la ñuy tuddee le gouvernement de cabinet dirigé par un premier ministre soo fa dindee premier ministre gouvernement amatul léegi premier ministre bu démissionné wala nga supprimer poste ba mooy képp ku doonoon ministre nekkatu ministre nomba tànk yoratoo ko moo tax bu fekkee suba lañ ko def ñi ñu tabb tey nekkatuñu ministre léegi lan moo waral fa la la ñëw mais ci suppression de facto suppression ci suppression boobu noonu bu ñu xoolee defe naa ni deux fois la am euh, Sénégal c'est par la première fois est-ce que mën nañu ñëwaat un peu ci yoon wi nga xam ne fa la war a jaar parce que Bab mi ngi naan léegi dem assemblée nationale lan mooy procédure bi ngir dindi lu jëm ci poste premier ministre. voilà moo tax dafa am solo. boo xoolee du rek dañuy dem assemblée nationale ñu jël une loi ordinaire. Mhm. maanaam ñu ñëw député def ñu déedéet révision ngay def. mooy da ngay laal constitution bi bu boobaa nag lii la ñu tuddee pouvoir constituant. lu assemblée ordinaire mooy wax. Mhm. mais li ñu tuddee le souverain. bu boobaa article bi ko tënk mooy article ko dafa ne bu ñu bëggee coppi wala indi ay coppite ci constitution. il faut ñu jaare ko par li ñuy wax une loi constitutionnelle par commodité de langage maanaam ci waxin mooy loi buy changer constitution maanaam mu indi fa lu bees wala mu dind fa dara bi nag dafa war a dindi dara te su fa dindee dara aussi il faut mu teg fa dara dinaa ko leeral mhm. léegi mooy révision constitutionnelle dañu ni président de la république mun na yóbbu révision wala député yi yóbbu ko waaye président moom dafa am sañ-sañ bu ñu ko jox bu fekkee député yi la ala kulli alit ñoom il faut ñu jaar référendum moo tax Sénégal du ngeen mës a gis proposition de loi bu député jox pour ñu réviser constitution su fekkee député moo ko indi proposition de loi la ñuy wax mais dañuy jaar référendum moo tax député yi ñoom sonal lu ñu seen bopp parce que xam nañ ni mënuñu fi initier référendum maintenant su fekkee président de la république la dañ ne la mun na dem mu jox ko assemblée nationale rek su ko neexee aussi mu jox ko assemblée nationale ba pare jaare ko référendum. Mhm. mais ni mu waxee nii assemblée nationale la bëgg a yem. ñëpp xam nañ ne moom dama bëggoon mu continuer ci logique bi mu doon dem. parce que ah. euh, donc mu am aussi loo xam ni assemblée nationale mënu koo laal ci constitution. Mhm. référendum mënatu koo laal. te mooy li ma doon wax réforme bi 2016 xam nga sunu constitution avant 2016 dañ ne woon lépp. pour mën nañ koo réviser ba mu des forme républicaine de l'État mooy maanaam Sénégal mënatul nekk royauté wala empire c'est-à-dire kenn mënu fee jël teg sa doom wala teg sa jabar wala teg sa rak république lay doon ba faaw léegi nag dañ ci indi lu bees ñu ni mandat bi juróomi at ku fi nekk mandat bi juróomi at la ñu ne le nombre de renouvellement ku fi nekk benn yoon lañ lay dolli ak maintenant donc euh, waat ñu loolu la la durée du mandat le nombre de renouvellement du mandat donc yooyu soo ko jëlee plus la forme républicaine de l'État dañu ne la yooyu kenn mënu koo laal pourquoi kenn mënatu ko laal loolu dañ ko def dans la clause d'éternité c'est éternel pour nga jëlee ko fii il faut ñu am constitution bu bees léegi ba nga xamante ni président de la république moom nag li ko sañ-sañ may mooy constitution nee na ko lépp lu ci des su la neexee nag nga dem bu la neexee nga réviser constitution bi. kon verrouillage bi du verrouillage exclusive. non du tout am rek quelques trucs dafa am voilà moom mooy la forme républicaine de l'État ñu tuddee ko donc. Euh, loo xamante ni kenn mënu ko dindi ak li nga xam ne les clauses d'éternité mhm. mooy la durée du mandat du président de la République le nombre de renouvellements mhm. donc ci ci suñu doxalinu réew nga nga may ma ah. dafa am euh, rôle bu Assemblée nationale di jouer mhm. ci Euh, maanaam ñaar la mooy defar tëgg ay loi uh-huh. ak contrôler action gouvernement uh-huh. bu ñu supprimer poste premier ministre uh-huh. ban jeexit lay am ci wàll woowu ndax contrôle de l'action du gouvernement dina wéy di am ak ci ban forme lay amee alors ñett la sax parce que toujours loolu la ñuy waxee mais boo ñëwee constitutionnaliste yi dañu naan assemblée nationale ñett la am mm-hmm. bu njëkk mooy day investir le gouvernement mooy premier ministre bu nga gis toujours déclaration de politique générale di am moo tax moo taxee toujours dañ la naan suñu république yi wala ñun ni mu tëddee régime parlementaire la assemblée nationale day investir le gouvernement contrôler et le sanctionner. Mm-hmm. muy ñett. Mm-hmm. très bien voilà motion de défiance mais ñun motion de censure la am wala question de confiance. Mm-hmm. cest à que bu ñu demee déclaration de politique générale bu ñu nee député bu ñu nee ñu jox mooy moom laay wax sànq ni premier ministre mooy bopp bi. suñ fa jugee rek gouvernement amatul ñëpp ils sont comme démissionnaires. très bien on <laughs> moo tax nga xam ni assemblée nationale loolu mooy cëram moom laa ci la ñëw après. parce que moo tax premier ministre président da soxla. administration soxla ko mooy chef administration assemblée nationale soxla ko parce que premier ministre mooy interface entre assemblée nationale. mais euh, ñu gis aussi ci ci exercice am 5 euh, ans yëpp dañu doon gis que ni à chaque fois dañoo assemblée daal di def euh, taxaw wax. fan la toll ci ci ci ci ci li muy liggéey. voilà euh, tey jii bu nekkee ni loolu dañ na fi est-ce que on s'attend à ce que le président lui-même il vient parler aux députés. na la ñëwee. Mhm. voilà man looloo tax sax ba mu bañ ko waxee rek man dama jóg mais il faut ma wax ci aussi parce que aussi dafa am solo dañ ci wax ma ni non su nu ko defee mooy dañuy changer régime Sénégal. Mhm. régime politique ni ma ko waxee sànq régime présidentiel ak régime parlementaire régime parlementaire dafa war a am premier ministre ak des ministres boo fa jëlee premier ministre changé nga la nature du régime mooy doole ji premier ministre amoon ca président nga koy transféré ci président mooy maanaam ministre na mën naa ñàkk mmh. boo demee États-Unis amul ay ministre non du tout mmh. c'est-à-dire que le gouvernement de cabinet ci régime parlementaire la mmh. mais régime pouvoir exécutif bi président moo ŋànk lépp moo tax président wax na ko nee na dafa bëgg mu gaaw recentrage mot est important <laughs> et donc dañu nar a dem ci centralisation mm-hmm. mais centralisation man pour man baaxul mm-hmm. parce que président de la république su boobaa moom il s'expose mm-hmm. xam nga lan moo tax parce que suñu système le président il est l'élu du peuple c'est-à-dire que est le garant de l'indépendance nationale et de l'unité n'est-ce pas nationale c'est-à-dire que le président de la république tey il est irresponsable gouvernement mën na ñëw doxal ni waaw nit ñi grève wala dara ba ñu xool ni gouvernement bi sonn nañu ñu ni ah premier ministre bi na dem. teg ko comme fusible. premier ministre bi dem mu ni tabb naa keneen premier ministre nañu former gouvernement wala premier ministre mun na dem assemblée nationale assemblée nationale convoqué ko ne ko ñun dañu bëgg motion de censure parce que am na lu am am na benn scandale et cetera loolu la ñuy wax la possibilité de mettre en jeu la responsabilité du gouvernement mais président day toog fële su président xoolee ni yéen kat assemblée nationale da ngeen bëgg sax yéen daaneel nguur gi wala bànqaas yi fi ne mun na leen a dissoudre loolu mooy moyen d'action yi mais tey boo génnee poste premier ministre ak poste de gouvernement sauté président de la république même possibilité de dissoudre assemblée dootu ko amati. léegi bu boobaa aussi du ñu mën a daaneele ci gouvernement léegi da ngay doon ci régime boo xam ni régime présidentiel la séparation stricte mais président de la république su boobaa noonu damay joxe exemple rek su ñu demee élection législative par exemple mu am cohabitation. opposition bi ñëw gagné législative bi toog assemblée nationale di ko xool mu leen di xool boo def nag président ba kon motion de moom amati parce que gouvernement la concerne. ça ne mm-hmm. concerne pas un président. Mm-hmm. te su boobaa c'est le président de la République qui engage sa responsabilité. très bien le premier ministre est un paravent. Mm-hmm. c'est un bouclier barrière la. boo xamante moo tax ñu tuddee ko un fusible. su ñu naree atteindre président de la République. premier ministre interface la entre le parlement d'ailleurs président de la République warul dugg assemblée nationale du ngeen ko mës a gis. mu jël tànkam dugal ko fa en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. mais kon mën nañu xaar kon bu maanaam bu bu ñu supprimer maanaam poste premier ministre bi ñu xaar ko président assemblée euh, président de la République ñu dugg assemblée nationale kon. non dafa dugg. mu waaye dafa am lu bees. Uh-huh. moo tax ci yéen kenn wax na ko man dama jàpp ni président réforme bi mu bëgg def. bon je parle politiquement. Mmh. comme ni nga ma ko waxee je ne suis pas dans le secret des dieux c'est important. Mmh. mais régime présidentiel dafa am lu mu undu. Mmh. xam nga gis nga démb ay transhumants yu bëri wax parce que amoon na alliés yu bëri. moo tax forcément politique da ko laal. te régime présidentiel soo ko defee la plupart du temps da ngay am seconde chambre muy Sénat. kon suñu deful ndànk Sénat mën na fi dellu si. beneen bi si topp mooy régime présidentiel la plupart du kon suñu deful ndànk vice présidence mun na fi ñëwaat. parce que le vice président moo nar a présider le Sénat. muy le donc moo tax ma ni <laughs> c'est une réforme boo xamante ne. est-ce qu'on n'est pas en train de préparer la succession en réalité. très bien loolu aussi dafa am solo xam nga. Ah. kii da ko wax sànq ah. hmm, parce que soo jëlee ku mel ni Mouhamed Boun Abdallah Dionne. Mm-hmm. place am naturelle tey jii assemblée nationale la woon. Mm-hmm. mooy perchoir. Mm-hmm. parce que boo xoolee même Macky Sall c'était parce que premier ministre su liggéeyulee président pendant quatre ans ou cinq ans. Mm. ba gañeel ko élection day dem assemblée nationale président Macky Sall c' était mais tey jii nii boo xoolee moom ngay wax la coalition Benno Bokk Yaakaar parfois dafay doon atout mais aussi day doon faiblesse pour le président un boulet la parce que ses alliés mënul jug rek séparé wu ak ñoom. Mm-hmm. Mm-hmm. donc ba nga xamante ne tey premier ministre amul fu ko def. Mm-hmm. moo a jaar peut être mooy mi ngi changer la nature du mm-hmm. régime mais su changer la nature du régime président assemblée nationale dootul amati doole parce que boo indee Sénat par exemple président Sénat moo nar a remplacer président n'est-ce pas de la République dans le dans dans dans dans l'organigramme institutionnel. Ah, mm-hmm. ci noonu sax la ñuy daal di woy ah marqué boo leen may kay jeex na jeex na tàkk jeex na jeex na donc c'est comme euh, noonu la ñuy woyee rek daal di marquer une petite pause euh, clip ah puis on revient sur le plateau. garaaw na yow yow loolu nga doon mais man tekkil ma ko man dégg ma anglais boobu man sama anglais ah. dama laajte yow kan yow kan moo la introduire ba ngay wax yow yow. ah, ah! man rek. kii rek ci noobin laa noobin. xam nga ndóobin. <laughs> laxaat ki. picc ndóobin. ndóobin <laughs> day ñuul de. picc ndóobin. dëgg la maanaam picc ndóobin. ku ndóobin rey sa maam boo gisee lu. picc ndóobin laa damay naaw. picc ndóobin. <laughs> est-ce que doo doon ramatu ngir yàlla. ah kon de ramatu rafet na de. kon de moom a jiyee loolu la kon. maa ngi moom ñoo yàpp. Mm. Mm. waaw noonu la donc euh, ça montre le décor nous sommes à la deuxième partie euh, ci li nga xamante ni mooy matinale bi. laxaat rejoindre ñu euh, Babacar Tambédou ah tout tout beau. ñu rejoindre ah métti nga nag tey ni nga méttee nii. Eh, oh eh, eh, dama ne eh nànk. <laughs> nànk ma dikk nànk ma dikk déglu rek nànk ma dikk ci sama doom ji. law la cet yàlla bu la cet sama doom bi saa yoo plateau bi yëngu nànk rek bu leen ko catu yaay ma ngi nii toog bu leen catu euh, xale bu ndaw la amul dara deux ans deux dara ah, nuyu la Babacar Thiam maa ngi lay fay euh, Ajara di nuyu ñi nga xamante ne nii ñoom laa bokkal plateau bi bu leen faale rawatina téléspectateur ak ñi nga xamante ne dañuy seetaan ce matin seetaanu tey ci euh, rubrique jeunesse ñu doon wax citoyenneté zéro déchet mettre fin à l'encombrement ban rôle la ci ndaw ñi war a taxawee ñu amoon comme invité Simone bu Yanama mais malheureusement 4 heures du matin maa envoyé message mu ne ma dafa feebar. bu fekkee dafa feebar ñaanal ko yàlla yëkkati. dañ laa boo rek yow xam nga ni nelaw yi fajar kenn du ko yàq. yàlla fëgg boppam. <laughs> amiin waaw di ko souhaité bon rétablissement noonu ñuy jaaree nuyu ah suñu deuxième invité euh, Junior Dia Junior Diakhaté c'est ça. Mamadou Junior Diakhaté. voilà euh, Mamadou Junior Diakhaté. Ah, euh, ci clean up challenge donc ñu bàyyi la nga nuyu ak téléspectateurs yi. waaw ah, di maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp di nuyu téléspectateurs u 2STV yëpp di remercier Laxaat ak Nabou ci invitation bi. Ah. Ah, mais c'est quoi jaajëfal yéen tamit non ba ma jëmale discrimination nga ne lan waaw ah, tuuti def tuuti discrimination non jaxate dama tax ngay remercier laxaat ak nabu tout court waaw ah, parce que ñoom au moins dem nañu vers l'information quoi dëgg la ñun à la recherche non bi may su ko tee rek. bul wax bul wax bul wax ay booy yi quoi bul tontu booy yi. bul wax bul tontu booy yi doxal la fii moom boo gërëmee boo gërëmee bul tontu booy yi bu leen tontu doxal la. voilà ñaar ñi bu leen tontu ay booy faj laa yi bu leen tontu. ay noon wala ñu wàccee la plateau bi. jàppale kabayeer yi doxalal. voilà donc maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di nuyu téléspectateurs yëpp di kontaan ci invitation bi. ci noonu la ñuy woyee dugg ci rubrique jeunesse ah ak Babacar Tambédou. ah dama nuyoo solo ah, ah. yow kenn doo nuyoo man dama laa zappé. ah dama ah, da ngaa ñëw nuyoo say nuyu. barki yàlla nuyoo guma. eh. dama nuyoo eh, waaw nuyoo ah ma dama nuyoo nag yow zappé kii bàyyi. maa ngi nuyu MLK <laughs> nuyu MLK nuyu. Euh, booy jeunesse xam moom jeune la moom mooy borom jeunesse xale bu ndaw nuyu suñu invité Diakhaté Kaba Yéri Sidiki Sidi lu euh, mu tuddati <laughs> Mamadou Diakhaté nuyu booy pëj laay dégg naa moom nijaay ji da nga ko fal ministre te teet yaa ngi juum xool ko li tax ma doon bañ muy nuyu parce que yi la ci doon bañ daal bu baax di nuyu mbokk ñi seetaan ci suba si di lay nii bu baax di lay wax ni tey ñëwaat naa tey tey ñëwaat naa ci civisme ah. ñu fas seen waxtaan xam ngeen Macky Sall nag euh, am na lu mu Euh, loo xamante ni suluñu ne ko wax ko ci wàllum euh, zéro déchet tey nag loolu sama yëf la ma bëgg ci waxtaan ak yéen. zéro déchet ah, leneen nag leneen li mooy <laughs> leneen li mooy damay damay damay damay jaale sama benn frère. Ah, ah. bu génn àdduna. Mm-hmm. ah bu tudd Salif saw sama frère la. Mm-hmm. newoon sama xarit teg génn àdduna ma koy jaale. bu baax a baax di ko di ñaan yàlla sunu borom yërëm ko. ndax dafa sori loolu ci man. Mm-hmm. maa ngi ñaan yàlla suñu borom. Euh, daal di koy teelu teeru ci aljana yi. Mhm. waaw loolu laa bëggoon wax di wax namoon naa leen nag. waaw ah, ñoo la man moom franchement dama laa namoon nag. vraiment man ndax man mhm. euh, xam nga Magib des fois. kanamu Magib bi xam nga des fois doo am envie xool ko quoi <laughs> des fois da ngay bëgg laxaat à côté. bàyyi sama jumeau. <laughs> donc mooy loolu. Euh, rek tax ma dugg dugg dans le vif du. sujet dans le vif du sujet donc comme Simon la ñu bëggoon peut-être en tant que mouvement. Y'en a marre mouvement citoyen ñu waxtaan ak moom ci loolu mais puisque teewul aussi euh, euh, n'empêche ñun en fait dinañu jéem a teg kii bi sujet bi sur mhm. table bi jëm ko waxtaanee euh, ajara donc président Macky Sall si prestation de serment dafa yëkkati ay kàddu lu jëm ci wàllum citoyenneté mhm. lu jëm ci wàllum ne ay défi mhm. maanaam zéro déchet mettre fin à l'encombrement ñu ne le président Macky Sall a tapé sur la table waaye xam tey bu fekkee dañu wax wàllum citoyenneté xam nga ki nga xamante ne maanaam euh, dafa jàpp ni moom citoyen la dafa am ay valeur ay qualité yoo nga xamante ne dafa war a nekk ci moom tey dañ jàpp ni citoyenneté mooy ki nga xamante ne tey dafa am ay valeur yoo xamante ne ci moom fa mu nekk day mën a reconnaître boppam ne moom ci lii nga xamante ne moom ci moom la nekk foofu reconnaître na moom en fait gis na si boppam ci loolu. Mhm. ci wàllum soutien ba léegi mu ne day nekk koo xamante ne aussi day mën a teg ay jëf. Mhm. yoo xamante ni dina méngoo ak li nga xamante ni ci askan wi mu nekk ñoom moom la ñuy def. Mhm. te boo xoolee ci loolu lu ci demee ni wàllum <coughs> euh, droit droits humains. maanaam boo nekkee citoyen da ngay xam li la warloo ak sa moroom. boo xamee sa bopp ba pare. buñ ne tamit wàllum citoyenneté wàllum démocratie mu ngi ci parce que buñ ne démocratie c'est le gouvernement du peuple mhm. par le peuple et pour le il faut que mit ki nga xamante ne moom mhm. dafa bokk ci biir loolu mu mën a reconnaître boppam ci li nga xamante ne moom la peut-être euh, gouvernement bi fi nekk mhm. di def bu ñu waxee wàllum citoyenneté aussi wàllum développement tey bu fekkee ne bu fekkee ne nit ki da nga bëgg moom en fait mu nekk dëgg-dëgg citoyen surtout man rawatina ndaw ñi dafa am noo xamante ne noonu noonu nga war a mën a taxawee. Mm-hmm. léegi taxawaay boobu bokk na ci taxawaay boobu wàllum formation. Mm-hmm. ni ñuy jàppalee ndaw ñi. te wolof dafa ne kuy dégle ca ngaay da nga fekk na fekk nga set. tey bu ñuy wax citoyenneté ba pare ñi nga xamante ne ñoo nekk fii ñoo ko bëgg ñoo ko teg ci table bi bëgg koo jëfee. Mm-hmm. il faut que ñoom tamit euh, kii boobu comportement boobu. ñu ñu ñu ñoom ñu koy gis ci ñoom. ci seen ay wax. si seen ay jëf parce que en fait li ñu naan euh, askan wi wala nit ki li muy comportement bu mu am en général peut-être amaan na ñi ñi ci kaw ñoo ko wanul le bon exemple. Mhm. président Macky Sall nee ne dafa bëgg rationaliser administration. Mhm. ñëpp xam nañ ne administration Sénégal. Mhm. ni ñuy doxee tey rien que pour jël extrait de naissance rek. excès d'état civil pour am ko c'est tout un problème donc tey bu fekkee ni yow Sénégal bi par exemple un Babacar També bu ñëw ñu ne ko élection yi ñëw na na amul sax carte d'identité muy dem war a seet extrait par exemple mais mu dem ci état civil bi pour def une de temps wala trente minutes ñu passé loo ko toute la journée mm-hmm. mu découragé dem toog këram ne bu fekkee ne externe lii la may jaral mën naa ba ñu am carte d'identité su ma amul carte d'identité duma ma dem voter mhm. donc kooku devoir de citoyen foofu manqué na ko mais lan moo tax mu manqué ko mhm. c'est parce que d'une part tamit suñu administration lu ñu war a def defuñu ko mu wax ci wàllum zéro déchet xam nga zéro boo ko bëggee il faut que tamit askan wi ñoom ci boppam ñu bëgg ko ñu bëgg ko loolu aussi ba léegi te mu ngi ci mhm. te tey bu ñu jëlee réew bi ci mel ni Rwanda foofu dégg naa boo fa demee c'était un exemple. voilà mhm. te ñooñu en 1994 rek. en 1994 rek génocide mhm. moo fa amoon. ñu ngi koy fàttali voilà ñu depuis 1960 ba léegi. Mhm. ñu ngi wax zéro déchet. musul mus musul am. te zéro déchet boobu noonu ñen ñoo ko war a jiite état état bu ko war a jiite ok. Euh, population aussi. dañ ci war a dugal seen loxo mais pour ñu dugal seen loxo il faut que nguur nguur gi ci boppam mu jàppaleen leen ci na leen di jàppale mu tege leen jumtuwaay yi war mhm. parce que tamit doo bëgg zéro déchet ba pare nit ki par exemple man su ma quitté place de l'indépendance war a ñëw 2S peut-être amaana ma yor ay objet yoo xamante ne mën na lekk lekk mhm. mais ci circuit bi yëpp amul benn peut-être foo xamante ne lekk naa ba pare mën naa ko fa def mhm. wala ma yor lu ma war a sànni amul fenn fu ma ko sànni te xam naa ne lii peut-être mënul dugg fii mais je suis obligé ma sànni ko ci. mais temps bi du côté boobu tamit moi je crois que problème fi mu nekk réellement mooy ci nit ku nekk nga xam euh, li ñuy tuddee meddum buur mu nekk d'abord sa yëf. Mm-hmm. président de la république il l'a rappelé à deux reprises muy ci euh, bi muy def prestation de serment ak discours au 3 avril. Mm-hmm. ci ñaari discours am yëpp boo déggee ni muy waxee mooy ñaax askan wi ku ci nekk li nga xamante ne moom la ñëpp bokk. ku ne nga sàmmal ko sa bopp comme si yow yaa ko moom. je crois que foofu la gën a wax bi parce que li ngay wax ni état joxe jumtukaay joxe nangam. pour man euh, sens su responsabilité fu mu war a njëkk commencer mooy ku ci nekk ci ñun parce que tey ji bu fekkee état mi ngi jël di def ay poubelle ci mbedd bi alors que am na euh, ñoo xamante ne li ñuy faral di wax ñi gaam ak ñi raas dem bokkul suba nga gis ku ñëw jël poubelle boobu noonu këpp ko jël yóbbu yóbbu këram on en voit da ngay gis feeraay bi fii nga xam ne fa la euh, égout fii poubelle waru mbalit waru fa nekk nga gis ku ñëw jël weñ bi yóbbu dem jaay poteau électrique fi mu war a leeralee pour ñëpp bokk ko nga gis ñu dindi ko dindi li nga xam ne moom mooy fii li ci nekk wala xamu cuivre yóbbu jaay ji donc pour man le sens de la responsabilité ni ko président euh, Macky Sall waxee c'est très important ku ci ne ci ñun war nga mën a xam li la warloo ak euh, réew mi nga def ko laataa ngay laajte li nga xamante ne ni ko moom mooy euh, retour de l'ascenseur fi nga daaneele foofu lay foofu lay yëkkati c'est-à-dire que effectivement c'est ça la norme en principe noonu la war demee mm-hmm. mais parfois da ngay gis yenn comportement yi yoo xam ne c'est contraire à la citoyenneté c'est clair. fekk poto bu ñu kii euh, am na benn euh, benn zone boo xam ne man ba léegi j'arrive pas à comprendre. corniche Thiès xaw ma ndax mas ngeen ko emprunté. yoon boobu di am mbalit yi rek. waaw corniche mais mais poto lampe yi ñu fa tegoon yëpp. dañ ko dévisé daaneel ko. man j'arrive toujours pas à comprendre. quelque part je me dis aussi que li waral loolu mooy c'est-à-dire que yow mii en tant que sénégalais c'est vrai. que war nga xam ni lii sa alal la mais est-ce que du ñëg wala mere nguur gi parfois muy yóbbee genre message nit ñi di doxalee noonu mm-hmm. même si jaaduwul par exemple li ñuy woowee la distribution des richesses Sénégal ñun ñëpp ko bokk wax nga sànq lu am solo mooy gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple mais parfois tu te demandes ndax parce que dafa am dafa am dafa am richesse bi dafa am dafa dafa demee boor. Mhm. ba du coup dafa am ñoo xam ne. mais ils sont laissés. Euh, euh, mhm. euh, à mhm. eux-mêmes. bu ñu feebaree du ñu faju mais bu ñu bu ñu xiifee du ñu lekk. amuñu sax toit bu convenable bu ñu fanaan. kooku munoo ko imposer mu am citoyenneté gis nga dans la pauvreté euh, c'est très difficile d'avoir la dignité même si nag bon. c'est à des degrés euh, mm-hmm. yoo xam ne. Mm-hmm. mën nañ mën nañ mën nañ ko mën nañ mën nañ ko waxtaanee. Mm-hmm. mais nit ki pour nga am comme li ñuy wax góor day góor ci kaw dara. parfois yenn citoyens yi ngay gis ci mbedd bi seen melokaan da ngay gis par exemple parfois nga gis xale bu góor boo xam ne euh, dafay ràngu wala muy jaay benn affaire. mais boo ko xoolee nga xool tànk yi nga xool melokaan bu mu nekk mais kooku su aigri sa se comprend. dafa am benn euh, borom xam-xam bu wax mu ne. kaadal faqru an yakuna kufran mu ne tuutee tee euh, ñàkk yem ak kéefër mm-hmm. ñàkk tuutee tee mu yem ak kéefër parce que mais bu fekkente ni sa ngëm yàlla dëgërul rek di nga soxor. mais ñi ngi wax également Amerika ci wàllu woowu noonu ñu ne ñi ñi nga xamante ñoom ñoo ñàkk ñoo gën a féete ci ci diine gi donc. loolu day un peu paradoxal. non je dis que par exemple quand tu bu fekkente ni da ngaa ñàkk te amuloo foi bu dëgër. Mhm. boo moytuwul rek. di nga di di nga ñànki mhm. wala nga def yor comportement boo xam ne. Mhm. parce que yar d'abord. ci kër gi wala la war a tàmbali. président Macky Sall waxaat na ko voilà le citoyen on l'éduque à la maison. ñu mhm. parfaire cette éducation là à mhm. l'école. Mhm. c'est pas à l'école qu'on éduque. mais moment bii nii. Euh, l'éducation c'est à la charge des parents, c'est la responsabilité. moment bii nii il y a urgence on le sait mais euh, est-ce que tamit c'est pas trop tard. parce que Sénégalais yi ancré nañ loolu. de telle façon il faut de telle de telle façon que il faut des mesures très fortes. il faut deux choses pour y arriver. la carotte et le bâton. mooy wax ji. la carotte et le bâton. Sénégalais yi bu ñu feebaree nañu faju bu ñu xiifee nañu lekk nañu am habitation bu convenable waaye bu ñu jàddee yoon la ñu leen tegaat ci yoon. Mm-hmm. c'est ça maintenant nag on ne peut pas être exigeant et eh mais une chose et son contraire ah, maanaam li nga warloo ak askan bi defuloo ko ba pare nga bëgg askan bi c'est en fait c'est une sorte de révolte mm-hmm. quelque part. Mm-hmm. même si ça ne se justifie pas. mais est-ce que liggéeyu ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk dénk wàllu wi ah, ci wàllu laa bëgg ñëw parce que quand même quoi qu'on puisse dire ministère de l'assainissement ñi ñoo nekk ci ministère comme Nab wax ni que naam sax ñoom ñu ngi def ay jéego et tout Sénégalais qui ne suivent pas mais quand même man je ne comprends pas un pays boo xamante ni dans la capitale doo dox 100 mètres doo gis toilette publique. Euh, finalement voilà finalement yoon jéego. ñun ñuy toog fii ñëpp ah xalaat naa ne amul kenn ci ñu kuy tuur ndox ci ci mais loolu dafa war. même waaw mais c'est une question d'éducation et de mentalité. voilà. nit ki da ngay yar sa bopp. man quand de chez xam naa ni fa ma jëm xaw na sori mais dinaa jël samay. mais gis ngeen quand même phénomène bi am fële euh, côté côté Léopold Sédar stadium bi foofu et puis y a les restaurants. service toilette à ouvert la xam ni c'est la chose que je ne. boo xam ne si impardonnable. voilà xam nga loolu da nga wax ay comme li nga xamante ne peut-être moo xew et tout ça les possédés sa ngor rek sam xel dem ci encombrement. xam ci supposons tey bu fekkee ne ñoom tamit xam nga bu ñu waxee citoyenneté ba léegi encore moment ci la bokk parce que ñun ñun citoyens yi ñun sénégalais yi ñun ñooy teg loolu waaye dama euh, yaakaar ne euh, bu fekkee ne danga nga bëgg encombrement boobu mu dañ. MLK euh, c'est du waxuma ko pour pour joxoñ baaram tuuma kenn. mais bu ñu xool xoolee damay jël exemple Dakar. dakaar xat gi muy xat tey yow boo wàccee genre oto pour pour dem ca bërëbu liggéeykaay tu es obligé nga bokk ak euh, oto bi. tali bi parce que amoo foo jaar tey bu fekkee ñenn société jël nañ. Euh, fi nga xamante ni nit ñi fa lañ war a jaar def sa seen trottoir def def seen kii seen parking mhm. léegi tey. amoon na peut-être koo xamante ne nekkoon Khalifa Sall nekk maire même nekk bi temps yi mu nekkee maire de Dakar. Mhm. amoon na fi projet pour peut-être def de telle sorte que encombrement bi am ci Dakar oto yi fi ñuy taxawloo lépp ñu mën leen caser def ay parking. Mhm. mais tey ani ani ani ani projet boobu. xam nga bu fekkoon ne tey peut-être amaana ñoom nguur gi ni ñu noon taxaw taxaw nañ ko mais kooku même bu fekkee ne bokkuñu ak moom gis-gis. Mhm. moo nañ ko gunge. tegal projet boobu parce que projet boobu c'est pour. dans l'intérêt du pays waaw dans l'intérêt du pays. ma daanelee rek ci ci euh, ci loolu. tey MLK wax na ne éducation ci kër ga lay tàmbalee mais aussi bu ñu fàttali ne am na loo xamante ne amaana école lañ ko mën a jàngalee. tey buñ ne amaana peut-être li éducation à la citoyenneté ma naam bu fekkee ni. waajur yi dañuy yar. je me rappelle on avait des leçons de ba tey ba pare ba euh, pare président Macky Sall andi woon fi ay levée des couleurs. Mhm. levée des couleurs mu teg mu ngi am ba léegi mhm. mais est-ce que tamit est-ce que loolu rek doy na. Mhm. est-ce que tamit éducation civique rek doy na pour ñu jël askan wi au-delà de de éducation bi mu am seen biir kër. mu ñëw école ñu inculque ay valeurs yoo xamante ni moom tey si réew mi. day day xam li ko waxloo ak nit. Mm-hmm. ma xam man li ma waxloo ak MLK. xam li ma waxloo ak institution yi. Mm-hmm. xam aussi li ma loo ak lépp loo xamante ne daal yaakaar naa ne peut-être amaana noonu yoon boobu su ma si doxalee. Mm-hmm. keneen doxal si rek. mais benn prise de conscience bi deux secondes rek. benn de conscience bi quelque part Tambidou. li koy maye pour man cité nga sànq Rwanda. Rwanda 1980 ah. plus de 800 000 morts. Japon. ils ont connu des séismes. Mhm. ils ont connu euh, le bombardement. de Hiroshima dafa mel ni pour que peuple peuple pour que peuple yi def prise de conscience il faut benn drame bu. bu bu bu graaw dal leen dal leen. ñun nag bon je ne le souhaite pas ah. yàlla ñu ci yàlla musal mais ñun on a jamais. amee am nañu drame bato la Joola mais ba léegi tax kon dañoo ñàkk jom kon dañoo ñàkk jom mais donc foofu lañ koy foofu lañ koy ndar kee dañu ñaan yàlla dañu ñëw si yow dañu ñaan yàlla politique bi nga xamante ni jël nañ ko pour pour le moment xalaat nañ ko pour def ko mu bañ a nekk morne c'est ça c'est ça parce que je pense que pays. non te da ngeen non te da ngeen caa. des vœux pieux des vœux pieux. place gi anam. sachet plastique bi lu mu ci waxoon. léegi dugal ci say déchets dugal ci sa dugal ci say déchets waaw voilà. sama déchet waaw samay déchets mais déchet nit ñi ñi koy def ci ci dëkk bi. ah yooyu déchet sori na yooyu déchet sori na yooyu seeri déchet sori na yooyu. déchet sori na wala déchet yow bàyyi kii bu dugg si. mooy moom liquide la ndox la ndox. Eh. Ah! suñu biir plateau ñu ngi fii ñu tey ñu ngi dalal euh, ah, Mamadou Diakhaté waaw man maa ko dalal dañ ma ko àll quoi <laughs> dañu ko paas ko centré <laughs> <laughs> ñu ngi ñu ngi ñu ngi dalal Mamadou Diakhaté moom mooy ki nga xamante ni moom moo initié euh, clean clean up challenge mm-hmm. moom moo ko moom moo ko moom moo ko initié ah, loolu nag gisoon nañ ko États-Unis lañ ko gisoon ci benn américain boo xamante ni mi ngi tudd suma suma juumal tur bi Brian Brian. Brian Brian Burr xaw ma. Brian Brian ok moom moo ko initié woon. Brian yamanti tur bi xam nga tur bi xaw ma kii. Brian Burr ah non Biran. Biran Biran ok moom moo ko initié woon. <laughs> moom moo ko initié woon Ajara. bi mu ko initié li tax li taxoon mu daa koy mu daa koy njëkk a def. Mm-hmm. mooy biir koñam fi mu dëkk. dafa am mbalit bu fa nekkoon mbalit bi fa nekkoon nag mu am oto bu ko waroon ñëw jël si ko. Mhm. oto bi daal di retardé deux heures temps. kase mhm. mu xool ko xalaat ni xale yi buñ fa ñëwee mën nañ fa nekk foo ci ba jëlee ci ay maladie mhm. mu daal di sumeeku daal di nettoyé foofu setal ko daaj ci photo wu. bi mu ko defee nag lance ko. ñu ci bëri defar nañ ko boo xoolee Algérie am na beneen waay boo xamante ni Algérie la nekk <laughs> algérien la moom tamit mu daa koy reprendre def ko amal na tamit ñeneen ci yeneen dëkk yoo xamante ni jël jël nañ ko def ko mais Sénégal Euh, waa ji nga xamante ni moom mooy Mamadou Diakhaté moom la ñu dalal suñu plateau moom moo ko ñëkk def en tant que sénégalais. Mm-hmm. tey ñu daa koy dalal suñu biir plateau. est-ce que duñ ko ah, ah, ah, léegi da koy baay mu nuyoo. daal di koy laaj lan moo waral tey jii mu daal di mu daal di taxawal loolu ci biir Sénégal. non man le Mamadou Diakhaté sénégalais. <laughs> maa ngi nuyuwaat plateau bi yëpp ah, di nuyu mbokk téléspectateur u 2STV yëpp. Mm-hmm. Euh, di leen jaajëfalaat bu baax ci invitation bi di nuyu sama waa école école 3 de Kër Madiabel parce que je suis enseignant normalement heure bi dafa ma waroon fekk classe. Mm-hmm. j'ai une classe de C1 mais j'ai eu l'autorisation du directeur de faire l'émission avant de rentrer ah, sur Kër ils sont. avec le maître d'arabe parce que ah. bi ma nekk franco arabe la. Ah. donc j'ai fait huit heures onze heures ma génn arabisant bi ñëw def euh, onze heures treize heures. ainsi de suite chaque jour dañuy alterner après quoi. dama koy fay samedi. musuma musuma nag amel état bi heure ah. voilà ci télé laay wax damay jàngale waaw. bu directement directement je je sur Kaolack. Ah, ah. émission bi moom moo ma fi parce que am na yeneen émission yu waroon def ci semaine bi wàllu clean challenge bi mais clean up challenge bi léegi nekkatul Mamadou Diakhaté kese yaa yaa yaa staff derrière. am na benn organisation bu. Euh, ciy def ay publication. parce que dafa am benn xarit bu nekk Save Dakar. Mhm. bu tudd Sophia Hermana Sadio. Mhm. moom mooy bi premier challenge en tant que tel SAC la simple action citoyenne. Mhm. donc y a des personnes derrière yoo xam ne ñu ngi ñu ngi ci def liggéey bu bu mucc ay mhm. donc ñu revenir ci genèse ci genèse clean bi dama waroon def benn leçon géographie je pense euh, sur les saisons au Sénégal. Mhm. aw ma ma ne xale yi te ma leen génnee si biti ñu defi extramuros mais constat bi ma def bi ma génnee xale yi si biti nanguwuñu woon ñëw ci kaw mbalit bi def def observation libre bi parce que dañ doon monsieur fii dafa bëri mbalit ah je me la question mais ils ont raison ah. Oui. Mm-hmm. automatiquement ma dugalaat leen ci école bi c'était leen di léegi le mercredi. ma topp internet bi di xool laa gis Younes gis Brian ñu def même chose ma ne xaaral je vais essayer ma wàcc mercredi woo sama benn collègue ne ko kaay nga photo ma moom sax ma jàppe woon ay dafa foog ne damay foo quoi na ma jaxate da nga bëri quoi mm-hmm. ma ne mu photo ma ci kaw mbalit bi ma dem abu ñaari rato ak pelle ramassé kii yi def ko ci ay sac photo waat posté ko mais au fur et à mesure ma posté ko tëdd di nelaw yeewu appel yi bari sama téléphone. Mhm. pour man dafa am lu xew ko gars yi ne ma sa photo bi le presque sit internet yi pour prendre. waaw ci la ma monsieur le maire localité bi monsieur Kébé. Mhm. woowee këram ne ma vraiment gis naa photo bi ci internet bi dama bëggoon nga partage expérience bi ak élèves yi nekk lycée. Mhm. donc le lendemain matin. taxaw moo ma dem lycée def tuuru classe yi. waaw tamit man am na lu maire bi war na xaar non mais je vais expliquer nga def action boobu pour la parce que commune boobu dafa am problème mu insalubrité bu bu fa nekk. te am nañu décharge bu jar 94 millions man dem naa ci décharge bi mais nit ñi dafa mel ne dañoo réfractaire par rapport ak poubelle yi. poubelle yi pour mu dem fa c'est tout à fait un problème. Mm-hmm. et pourtant c'est bien organisé am na ay charrette ñëw di ramasser et tout mais forum da ngay gis mbalit donc moom il a voulu que ni xale yi def. pour nit ñi mën a prendre conscience que mm-hmm. dëkk bi war na war mën a set. Mm-hmm. le lendemain élèves yu bari def. affaire bi commencé nekk benn genre virus. ñëpp di def. Mm-hmm. mais gis nañ ni gis nañ ni sénégalais yi ni ñu ko noonu. Mm-hmm. xam nga tey jii challenge yi bëri na di nga gis ay challenge fecc. Mm-hmm. ay way sénégalais yëpp a ciy tuuru. ñëpp a koy defandoo. mais gis nañ challenge bi bëriwuñu ko def même si bu nekkee am na ay sénégalais yoo xamante ni. ñoom gëm nañu dëkk bi daa war a set ñu daa koy def. mais li ci ëpp. defuñu ko. yéen lan ngeen teg ak ay célébrité voilà ku ci mel ni ay Dip. ak Elzo mais yow ban ban ban ban lan ngeen teg pour que sénégalais yi mën a ànd ak yéen ci boobu combat. voilà comme que sénégalais yi an entre parenthèse ñu bëgg folklore. Ah. man bi ma toogee bindaal dama ne la projet boo xam ne day ànd ak folklore ak citoyenneté en même temps. Mhm. ci lañ bind benn projet bu tudd SAC simple action citoyenne. buy viser ñu nettoyer benn endroit boo xam ne tàmmul set. tàmmul mhm. Mhm. mais da du du nettoyer kese dañ koy nettoyer defaat suivi bi maintenir ko mu set. donc dañ ne fi jëlee mbalit bi dañ fay jéem a def dara dañ fay accord dañ fay def dara par exemple ñu defa concert wala ñu defa ay stade tëb yoo xam ne. xale yi dinañ ko mën a ñëw fréquenter à nouveau ay toboggan ay place publique mais ñu ne comme que amuñu moyen dañuy commencé ak suñuy propre suñuy propre moyen mais léegi pour nit ñi def foog nga contacter célébrité yi moo message yaan mooy mooy kii wu Elzo automatiquement ñu def ko ak Elzo contacter Booba bu Dip ñu def ko ak Dip pour xale yi déglu seen i musique bu ñu gisee seen seen idole def ñoom tamit uh-huh. dinañ ci sawar parce que uh-huh. démb dama am bu moom metti bu ma gis si internet bi un gamin la posté sur mon mur dama ko effacé sax pour ma dire ni état bi ñun ñu ngi koy fay ay tax donc tax si taxe yooyu la waroon fay ñuy bale je ne vois pour lan ngay dem di bale man du ko def ah, il n'a rien compris mhm. pourquoi il n'a rien compris l'État c'est nous tey dañ engagement citoyen voilà c'est nous bi ñuy def 4 avril mhm. bu ñuy def 4 avril mais gisuñu woon kenn à part Soya Diagne Willy ak Willy Ndaw bu trash challenge mhm. ñoo fa nekkoon ñu ne leen liggéey bi dafa metti duñ ko mën def man ñu ne gars yi nañ ko def même bu dee dañuy nekk six personnes on va le mm-hmm. duñ ko def parce que fii lañ bokk. Mm-hmm. duñ ko def parce que gëm-gëm bii lañ am mais dañ koy def parce que Sénégal lañ gëm encore une fois. Mm-hmm. le président l'a fait le 3 avril mais affaire bi fi mu toll nii dafa dafa jël dafa jël ampleur bu mag a mag. mais waruñu ko politiser. Mm-hmm. parce que bis buñ ko politiser mu yàqu. parce que ah, gis naa ci gis naa ci benn politicien boo xamante ni nekkoon na ci. Mm-hmm. te su ma jumul fal nañ ko actuellement ministre. waaw c'est Abdou Karim Fofana man xaw ma ko woon ah uh-huh. bu ma ko romboon du ma ko xàmmee. Mm-hmm. mais dem urbanisme. voilà dama dama te daje nañu le 4 avril ci challenge bi nuyonte nañu mais xaw ma woon sax ni moom kii la homme politique la. démb si guddi laa gis nii fal nañ ko ñuy profité ci occasion di ko féliciter c'est bien moom il était venu en tant que citoyen. politiciens yu bëri ñëw nañ fa. message bi ñu message bi ñu fa jàllale mooy bis bu ñuy organiser clean challenge quelque part bu fa kenn ñëw wax sa entité wala nga fa sa nañ wax Sénégal ak citoyen Sénégal ma ci gën a marqué bokk na na ñoo xam ne commencé woon nañu saboote dañuy gis koo xam ne jël mbuus. en fait Sénégal néewal ñàkkal fayda affaire li mhm. euh, maanaam parfois. Euh, li ñu gën yitteel mooy li nga xam ne ay ay waxu kasaw kasaw la. ay ay ay challenge hoho. on s'intéresse plus à, à ces choses là à ces mm-hmm. sottises. Mm-hmm. Hein, que de s'intéresser à li nga xam ne moom mooy jëmale suñu réew kanam mais euh, li nga def moom au-delà de l'acte citoyen xamoo impact bi gis nga nee nañu ku tàmbali lu baax. Mm-hmm. fii ba baa adduna euh, di tukki képp ku ci roy ci yow ci def lu baax loolu. yow dangay am da nga ciy am tuyaab. loolu vraiment man. Euh, c'est une chose boo xam ne marqué na ma trop trop trop. rond euh, Liberté 6 nag ñun am nañ fa benn dépôt d'ordure man xam naa dinaa def clean up challenge bi foofu. <laughs> yow doo mos a euh, sérieusement dinaa ko def waaw ko ñu te il a dit quelque chose de très important. Uh-huh. mooy parfois di nga bale fenn mais boo fa deful dara rek gars yi indiwaat. gars fa bale bi donc juste exemple boobu noonu ci bale boobu noonu parce que dafa am benn. genre poste courant la woon foofu marché bu bees Guédiawaye dañ fa doon faral di tuur ndox di fay sotti ay mbalit mais un jour dañ ko peinture mais peinture ko def ci ay photo foto sëriñ ah, donc du coup voilà kenn mais bi wala nga def <laughs> ko euh, rituel demee gars yi commencé waat ñëwaat di def dolli ci loolu moom li ñu doon wax rek ci wàllu citoyenneté ama kii c'est un citoyen mm. moom xam na li ko war ak ak ak fii donc loolu nekk na ay exemple yoo xamante ne yaakaar naa ne aussi buñ ci buñ ci jëlee exemple rek. donc noonu lañ lay remercier Babacar euh, Tambédou. merci beaucoup euh, di remercier également suñu invité. Laxaat euh, nga nar fi dalal keneen ci. waaw ci deuxième partie. war fi dalal benn artiste bu wuyoo ci turu Boni. Mhm. moom la ñu war a recevoir léegi ci plateau bi xam naa mi ngi ci ginnaaw léegi léegi mu yegg ci plateau bi. su nekkee bàjjen mën nañu may mhm. vidéo am. Mhm. mu daal ñu may vidéo am en attendant mu. bu ñu mënee am clip rek euh, ñu daal di introduire suñu suñu invité. gis nga seen su seen coulisses yi waroon jël nag génne ko seen fecc yi ngeen doon fecc fii léegi. ah coulisses yi coulisses émission la <laughs> donc la xaar ah nga dalal beneen gan. waa kii mooy euh, Boni Boni moom euh, artiste la nekk rakk ci waa bu bees di artiste bokkoon ci benn groupe bu bu tudd Boni NP. Mhm. mu daal di nekk ci groupe bi rek pendant des années mu xëy bës daal di arrêté. daal di dem li nga xam euh, mooy euh, concours boobu tudd The Voice. Mm. la demoon. dem The Voice yee dem représenté Sénégal. Mm-hmm. fin ak donc bi mu ñibbisee rek après ci la arrêté ci groupe bi daal di jël carrière solo. Mm-hmm. moom mooy Boni tey boobu la ñu recevoir dama koy bàyyi mu daal di nuyoo. daal di nuyu Sénégalais yàlla dafa bind nit bind malaaka bind jinne ba noppi joxoñ nit ki ne ko yaay doon di sama xalifa defal lu baax fonkal suuf si del dimbale bul jaay doole xanaa gaa ñi dañoo déggul ñi ma sorul woon ba ni màgg ñi ko fogul woon bu ni màgg na na na na na na Je m'inspire de ma vie quand je chante, je chante pour enchanter xolli oh, fi ne wax ci duma ko ray gaa ñi déglu leen ñu roy ci maam yi rafetalaat soppi jikko yi dellul ci yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ziar neex na neex na neex na ziar naa leen bu baax macha allah jaajëf maa ngi rafetlu vraiment invitation bi je suis très content d'être là avec vous mhm, ñu lay dalal si suñu plateau ah alors Boni euh, ñu gis la nga daal di génn single bu bees tàkk mu tudd Coco lu waral Coco Euh, bon Coco ça parle d'amour comme ni ngeen gisee vidéo bi et tout donc euh, mbëggeel la comme que Sénégal la ñu. mais yow Coco bi est-ce que xam moom balaa nga koy utiliser ci sa ci sa kii. bàyyi ruube moom nag ah. bàyyi ruube jàmbur la de nga ko def ko way. de woy naa ko yaa yaa quatre ans ci ginnaaw. <laughs> damay doog a génn rek <laughs> kon yaa moom Coco. voilà donc mooy loolu comme que mm. Sénégal dañoo bëgg mbëggeel et tout tu vois. Mm. te je chaque fois que je faisais les lives et tout public dañu doon bëgg chanson bi et tout après je me déjà composé la chanson après présenté ko Sénégalais aussi ci style lu tradi moderne xam nga ci loolu la ñu xaw nekk et tout donc ci euh, recherche yooyu lañ nekk ci vois après ñu jéem def loolu après pour présenter ko Sénégalais xool exactement quoi ce que ça a donné tout alors ñu gis euh, seen famille mm. ñëppay way parce que Bidew bu bees euh, ñi fa nekk say frère lañ. dëgg lan moo tax intégré woo <laughs> groupe bi. loolu rek loolu question buy ñëwaat la à chaque fois et tout comme que ñoom trois lañ. te voilà on est quatre frères man je me quatre frères dans un groupe ce sera dafay dafay ëpp quoi. waaw ah, dafay xaw a bëri donc euh, man bon comme que seen musique aussi moo ma teetee xam nga ci ñoom laa jàngeek yooyu noonu et donc mieux vaut samay passion ak li may yëg li may sentir ma xaw a écarté wu tuuti mën a vivre sama passion tout temps nag ñoom ñoo may conseiller ñoom ñoo may teg ci yoon bi carrément quoi. dafa mel style musical bu mu am ak ñoom bu ñu am na tamit euh, benn différence waaw surtout ak kalbaas bi waaw si si ah. en fait loolu moo tax ma choisir loolu parce que bu fekkoon dama nekk ñoom rek je vais mën a ci biir donc il faut man ni ma sentiré wala ni ma déggee mm-hmm. après ma présenté ko Sénégalais au moins ma xaw am différence mais gain bi il est très fort ah sànq gis naa affaire pourquoi choix wu pourquoi choix wu parce que Calabas mooy que bon Afrique la jógee Sénégal et tout donc suñu culture la. te ñu mais xalpulaar est-ce que nekkul dañuy utiliser Calabas loolu. waaw si si si alpulaar alpulaar mais boo xoolee sax joolaay ñëpp dañ koy utiliser par rapport ak seen musique at et tout man nag man comme ni ma wax recherche recherche bi may def donc c'est purement africain mhm. bugguma mhm. jël suñu rythmique yi nga xamante ne ni moo nekk fii Sénégal et parce que euh, lii calebasse la mais en même temps bongo la en mhm. donc sometimes mu jouer calebasse sometimes am na musique yoo xam ne lañ koy rimer ak mu nekk bongo ak guitare bi comme mu am beneen sonorité quoi voilà c'est un peu compétition bu tudd The Voice. Mhm. nan la demee est-ce que mën nga ci dellu waat. ok The Voice euh, comme li may wax rek fierté la pour euh, artiste bu nekk vraiment mu mu participer ci loolu noonu donc yàlla bi mu ñu mayee ñu dem participer ci loolu noonu ak euh, casting bi mu météo woon et ñu dem. Mhm. tu vois donc loolu moo ñu gën may ouverture par rapport ak suñu musique bii nii tey parce que dañ dem nañ foofu noonu fekk nañ fa nationalité lu bari mais ku nekk sa sa sa identité indi au léegi moo tax ma ne man au lieu may xool feneen vraiment li ma moom wala li ma am loolu laay jéem a vraiment euh, liggéey koi comme ça xam nga ma présenté ko gars yi dem naa et tout xaw naa sori tuuti dem naa ba Batel passé naa audition à l'aveugle et tout. Mhm. voilà dem naa ba Batel et tout j'ai eu comme coach Lokwa Kanza moom tamit école la ci ci ci musique africaine et tout mhm. donc il il m'a beaucoup vraiment il m'a ah. beaucoup conseillé il m'a beaucoup aidé te ba tey ba sànq voilà ça lépp lu may def voilà dama ko koy wax kii carrément te moom mi ngi ci mi ngi jàpp ci liggéey bu baax quoi mais The Voice vraiment expérience bu baax la boo xamante ni vraiment c'est ça qui m'a permis mhm. tey jii ma am vision ci sama musique quoi voilà macha allah quoi alors yan événement ngay waajal fu mu toll actuellement. actuellement ñu ngi ci euh, mois d' avril kooku génn na donc comme ngeen ko gisee et tout donc présenté nañ vidéo bi sénégalais pour vraiment ñu mën ko consommer xool exactement style bi ak ni ñu ko defee ak yooyu noonu j' espère que dina leen neex et tout. tu vois donc euh, li ñëw dans l' immédiat moom mooy que voilà je suis nominé. Euh, ci euh, festival Sika bi nga xamante ni si festival Sika international buy am chaque année bi mooy treizième édition buy am Guinée Conakry bon beneen la doon am mais bi yoon Guinée lay am donc je suis nominé je dois représenter le Sénégal au festival Sika dans la catégorie de la meilleure musique moderne d'inspiration traditionnelle donc mooy ñaan ngeen def ci ñaan affaire ñu bàyyi ko boobu euh, balaa muy tëj bu dal askan Sénégal ak Fuladu particulièrement parce que Maayo jaaw moo génn àdduna ni mm. kii tey si suba ci oh. ab benn l'accident bu mm. am euh, donc gis nañ ko samedi bi passé mm-hmm. joué woon na foofee ca Cissé donc ñu ngi jaalee mm. oh. Sénégal di jaalee artiste Fouladou baax mm-hmm. ba ba mm-hmm. donc ci oh. génn àdduna jaaw artist artiste noonu ngi jaaree daal di remercier suñu suñu invité ah, tuuti ah, mu may ñu tuuti si si li ñu si li mu doon def. murk xarañ moo mën a gëm leen buñ ko doon xaare newul foofu yow bakkan bu dal be wuyul sa borom yow ba muy méttee yaa ko xaaroon irjon ila rabbika radiyatan mardiyatan maam Ibra Faalo han su gaañu xooloon lëndëm gi day leer gëlëm la muy waaxoo xajul ci néege xamul bëggul dundul lenn lu dul baayo yal na yàlla fay la maam Ibra Faalo maam daan la bind turum ya ca mool ya tey jumaa ji mat na xamul bëggul dul dul la dul dul baayo yal na yàlla fay la ka jàllo jéere layla ilallahu layla ilallahu ka jàllo baay yeyeye yeyeye layla ilallahu layla ilallahu ka jàllo baay yeyeye voilà ce qui m'est fait parce que foog ñu doxantu ma indi alaaji foog ma wax farak fan nga farak fan ngay tëgg très rapidement <laughs> de souci donc dañuy xaar bu jógee jógee euh, ci je pense que ci festival bi mu jógee rek je pense que euh, koor gi la donc mais juillet le mois de juin inshallah xam naa dinaa leen jox date bi inshallah mais war nañu def benn benn <laughs> <laughs> dañ def benn show inshallah on a fait quoi maa ngi seen ginnaaw donc euh, voilà ce qui nga xamante ni yéen doon suivre depuis ce